وجاد وجل من تكريمه بانا في سار مولد من في البار ربانا فنكب تي في تلخادم رسول bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin mbokki jullit yi mbokki talibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen jaajëfal ci ànd bi ak kóolute gi nga xam ne ni am ngeen ko ci rajo université Cheikh Ahmad Bamba waxoon nañ leen sànq bu ñu demee ba ci kanam danañ amal jataay bu special jataay boo xam ne ni dañu ko amal ak mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci bitim réew ci diaspora bi te ay bés yi yëpp ñu ngi ñëw fii ci dëkk bu sell bi di Touba fas yéene jébbal seen liggéey xalif général des Mourides Serigne Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ñuy ay bokk yoo xam ne nii ñoom sori du dox seen diggante ak liggéeyal Serigne Touba daanaka dañu gàddaay bàyyi seen i kër bàyyi seen dëkk nekk ci yeneen i réew di fa yëngu ngir lu lew taxaw seen njaboot waaye di fa liggéeyal lislaam liggéey bu mucc ayib boo xam ne ni mu nga doore woon ci góor yàlla sëriñ Muxtada Mbàkke yàlla nañu ko yàlla fayal sëriñ Mamor yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ñëw ñu feddaliwaat seen kóllëre ak seen laxasaay ak moom ba fu nu mën a nekk ci àddina bi bu ñu ñëwee ci dëkk bi balaa ñoo dem fenn di jébbale seen liggéey dañuy jaar ci moom loolu nag moom la leen sëriñ Mamor waxoon ne yéen ay missionnaire ngeen ndax fa ngeen nekk l'islam ngeen fay liggéeyal ndax fa ngeen nekk sëriñ Tuubaa ngeen fay liggéeyal ndax fa talu leen kenn talu leen lenn lu dul Serigne Touba day rafetlu toujours makkaan yu am maanaa yoo xam ne yéen a koy liggéey te nee na ñu ci bëri ndeysaan seen kër sax jagul waaye xalaatuñ seen bopp xalaatuñ seen kër Sëñ Touba rek la ñuy xalaatal ñooñu nag bu ñu amee occasion dajeek ñoom ci jataay yu mel nii faw ñu prier leen ñëw ngeen gën a xam taxawaay bi nga xam ne ñu ngi koy am ca bitim réew waaye ñu ngi ànd ak yeneen mbokk yoo xam ne daanaka lépp benn la ndax Air Sénégal la Sénégal moom. bu ñu ko xasee tudd képp kuy Sénégal rek xam nga sa yëf la nit ki nag sa yëf moom da nga koy toppatoo danga koy jàpp te da koy fonk mu gënal la leneen lu dul sa yëf ndax kat dafa doon fierté boo xam ne nii ferte sénégalais yépp la ndax yéen ñi yàgg ngeen a tukki daan jëfandikoo yeneen makkan kon tey bu jamono doxee ba ngeen am makkaan moo xam ne ci seen biir réew la bàyyeekoo loolu yaakaar naa ne bu fekkee ne Serigne Mamor doon na fédérateur boobu nga xam ne lu baax ci réew mi rek dana leen dajale ba nos leen ñu doon benn liggéey bi dafay gën a yomb ngir njëkkanteek waxtu wi nag ñu ngi ak Serigne Jigal Serigne Jigal di kenn ci collaborateur u Serigne yi te yaakaar naa ne semaine bi yëpp ñu ngi fi di fi def liggéey bi am solo ak sëñ Mamor Mbacké dañoo bëggoon rek mu tënkal ñu defal ñu synthèse tuuti ci activité Serigne bi ci semaine bi ci ñi nga xam ne ñoo fi jote jaar ak li leen fi indi waaye ak yéen ñi nga xam ne nag seen taxawaay macha allah tubarkàlla ci biir wax ji sëñ Jigal dina présenté jataay bi ndax ñu ngi fi ak waa Mika ñu ngi fi ak waa fondation Cheikh Ahmad Bamba ñu ngi fi ak waa Air Sénégal sëriñ Jigal bismillah. <coughs> Ah, asalaamaaleykum jërëjëf sëñ Cheikh eh, Activité yi nga xam ne sëñ bi def na ko ci semaine bi mooy dafay mel ni altine altine bi ñu xëyee ci waxtu wi les ñu tudd seen bopp ndawu Serigne Touba xam na daf ci am ñu nekk senegal am ñu nekk New York fii lañ ñëw yendoog sëñ bi waxtaan ak sëñ bi ba ca ngoon ñu waxtaan yu am solo sëñ bi joxaat leen ay xel joxaat leen ay xalaat ñu door a dellu démb ci waxtu wi waa France ñëw nañ fi c'est seen fédération daje fii ak waa Gabon waxtaan ak sëñ bi ci université bi waxtaan yu am solo bañ fa jógee gont dem seeti xalif général de mourides jébbal ko seenub liggéey sëñ bi sax ba mu ko waxee mu ne leen dama waxoon sax damay fatu xaw a wéetal sama borom door a tàmbaliwaat nuyoog taalibe yi waaye bi nga xam ne dégg naa sëñ maam moor ne taalibe yi ne bitim réew dañuy ñëw andi seenub addiya loolee moo tax danaa leen ubbil ñetti fan yooyu ku ci ñëw ci ñoom ku ne dina saafante ak yow jël sa liggéey ñaan yàlla sëriñ Tuubaa nangul na la ko kon démb ñooñu dem nañ fa tey nag waa Amérique ñëw nañ Amérique moom yàllaa leen may seen bayre bopp moom mën nga leen ëpp ñu ëpp la bayre man nga leen a sut ñu ëpp la bayre moom yàllaa leen defal seen bayre bopp ci bayre boobu nag daf ci am tey jataay bu am solo bu fi nekk muy waa Mika ak waa Fongab ñoo ànd daf benn bopp daf benn say ndax moom lañu lañ masa ne tey fetliwaat ko ka jiite Mika tudd Pape Dramé ànd ak sëñ Habib jom ñoom ñu ñëw teewal fii lépp loo xam ne ci Mika nga bokk bi ñu ñëwee fekk nañ fi mbokki taalibe yoo xam ne ñoom Fongab lañ fi nekkal Fongab nag ka ko jiite Fallou Samb la tudd waaye sëñ Fallou ñoo muy liggéeyal moom bu nekkee fee ñoom ñu ne fii day mel liggéey bi ci lay gën a dox que ñu ñëwee bu ñu àndee bi ñëwee tey nag ku ñuy wax Euh, Saliou jop mu ngi fi nekk North Carolina ku ñuy wax Mbacke Thioune yor Aditu Rahma mu ngi fi moom nekk dafa mel ne Philadelphie sëñ Xaadim Thiam mu ngi fi sëñ Xaadim Samb ñu ngi fi di ay gano yoo xam ne dañoo jàngoon ba jàng seen jàng yóbbu leen Amérique ñu dem fa jàng fa ba di lijaasa bu nit di am bu ne am nañ ko fa teewul ñu laxasaa yu ànd ak waa Kër liggéey bari na ñoo xam ne da leen gis muy sëñ Xaadim Thiam muy sëñ Xaadim Samb bi nag fekk nañ fii Euh, waa Air Sénégal Air Sénégal ñoom itam li nga xam ne mën naa ko wax waa Mika waa Fongab mooy ñoom yoon wi ngeen di jaar lañ jaar ñoom bi ñuy ñëw Touba dañoo ñëw seet sëñ Maam Mor Mbacke waxtaan ak moom jóge fa directeur général bi ñëw ànd ak collaborateur bi ñëw seetaat sëñ Maam moor jóge fa dem seeti xalif général de Mouride comme ni ngeen koy defee tey bi ñu déggee ne da ngeen di ñëw. ñu ñëw fii ba ñu ngi fi tey ñu ngi fi suba dañ fi nekk ndax suba bokk yi jóge Italie dañ fi ñëw ñoom ñu ànd ak ñoom di liggéey li nga xam ne nag suñu pap euh, Cheikh Amar nit mën na koo wax moo ñii boo demee Amérique ak taalibe goo mën a am ak cawarte goo mën a am ak pëstef boo mën a am da nga xeeb sa bopp ndax ñoom dañoo ne ci Amérique moo réew moo xam ne ñëpp xam nañ leen ci time is money réew moo xam ne minute bu ne boo ko defee war na laa jural dara sa àddina waaye ñoom noonu la ñuy bàyyee loolu lépp ngir yàlla ak jëmmi Sëriñ Tuubaa bi nga xam ne Seex Muhammadul Murtada moo ko sosoon kon ñii ñu jar a ñaanal lañu ñu jar a xam lañu kon ñoom sàkkuwuñu ñu ñëw fii ngir siiwal leen ñoom dañoo doon liggéey seenu liggéey di ko jox ngir yàlla ak Sëriñ Tuubaa waaye dinay baax léeg-léeg si ñun mbokki taalib mel ni man nga dégg leen gis leen ngir soññaan sa bopp ci liggéey yëpp Cheikh Bamba kon loolee nga xam ne temps yi musu la ñu koy defee ci Amérique ñoom daal nañu yàlla dimbali ba temps bu ñu am ñoom na ko yàlla jël ful ko jokko see Cheikh Amadou Bamba mu fulandi ko jox ko Cheikh Amadou Mourtada mu jox ko sëñ Muntaxa mu tegaat ko seen loxo yàlla sàmm leen aar leen ba lii ñuy def ñu yàgg koo def ba seeni doom ñu ànd ak seen i doom xam ne bu ñëwee ñoom duutu ñu ko mën a def ay doom yoo koy def ndax ñoom ñu taxaw ndax boobaa ñoom dañu gën di firndeel ne seen ub liggéey yàlla nangu na ko yàlla na yàgg bisimilah rahmaan rahim jërëjëf jërëjëf sëriñ Jigal yaakaar naa fi nga tàmbalee am na solo ci ndaw ñi te kenn ku ci nekk day wax wax ma yan ndaw nga yor ma wax la lan mooy sa ëllëgu réew kon bu fekkee ne même ñoom seen doom yeeg seen sët yi am nañ kuréel goo xam ne nii ñu ngi leen di waajal ngir ñu jël relève bi loolu bu ñu ñëwee fii yaakaar naa ne lu am solo la si njigal waaw dafa am loo xam ne daf ma dal ci biir wax ji euh, dafa mel ni américains yi dañuy wax last but not least <laughs> waaw sëñ Xaadim Buso mu ngi ci jataay dama ko bëggoon a mujjee <laughs> waaye fat waaw ndax sëñ Xaadim Buso ñëpp xam na ko moom waa Sénégal xam nañ ko waa Amérique xam nañ ko moom jàng na li war a jàng xam li mu war a doon doon li mu war a doon ba noppi am fitam ak faydaam ci liggéey bi nga xam ne nanguwul kenn kenn ku yàlla bind mayul la nga tudd liggéey yëpp Cheikh Amadou Bamba te tontu ko defak yow te foo ko fekk doo ko yab mooy suñu xaadim yàlla def na moom mu ngi nii jataay bi moo ko toog te loolee moom waa Mika nungul nañ ko ko waa Fongap nungul nañ ko ko kon moom dafa mel ni taxawaay boobu lay toog maanaam taawaawu ndey ji Cheikh kon sëñ Xaadim yàlla la sa maam jàppale yàlla la sëñ Mbàkke Buso jàppale gën laa yëkkati ndax yow ndam nga ci ñi sant Buso ndam nga ci ñi sant Mbàkke ndam nga ci waa kër Cheikh Amadou Bamba yëpp jërë ngeen jëf jërëjëf sëriñ Jigal xam naa dañuy jaare noonu rek sëñ xadim Buso euh, ubbil ñu euh, jataay bi ci gannaaw bu mu mu nuyoo rek mën nañu tënkal tuuti rek liggéeyu euh, waa diaspora bi liggéeyu sëriñ mamoor Eh, ci diaspora bi rawatina ci barab boobu nga xam ne ci la ñu nekk muy eh, Amérique eh, sëñ Xaadim kon mën ngaa jël micro bi incha allah sëñ Xaadim Bousso bisimilah yow nga ubbil ñu li nga xam ne nii moom mooy moom mooy jataay bi tënkal ñu rek ci gannaaw boo sofee ci kàddu yi nga xam ne sëñ Jigal yëkkati na ko fi léegi liggéeyu Serigne Mamor impact bi ak importance bi ci diaspora bi rawatina nag ci barab boobu nga xam ne ca ngeen nekk yéen ñëpp di fa yëngu bisimilah. bismillaahi rahmaani rahiim sëriñ Cheikh ñi lay nuyu bu baax di la ziar di nuyu waa Foncab yëpp di rafetlu seen liggéey ak seen taxawaay di nuyu alaaj sëriñ Jigal mi nga xam te ne ku nekk xam na ko ci digganteem ak sëriñ Maam Moor Mbàkke ci liggéey bu rafet waaye di jël nuyoo bee bu yëpp nag di ko teg ci loxo sëriñ Maam Moor mi nga xam mooy kilifa jotaay bi di kilifa diaspora bi mu ziyaaral ñu te nuyul ñu Cheikh Mouhamadul Muntaqa al xalifatul am li tariqatil muridiya di am mbégte lool ci teew fii ak mbokk yu baax yu tedd yi fi nekk muy waa Amérique te bu ñu waxee Amérique mooy FONCAB ak MICA Mouride Islamic Community in America ak fondation Cheikh Ahmadou Bamba lii nag tawféex la ndam la sëñ Cheikh bu fekkee da ngaa laaj impact bi liggéeyi suñ Maam Mor Mbacke am ci diaspora bi yaakaar naa lii misaal la ci ndax FONCAB ak MICA. mooy ñaari daayira yi nga xam moo ko collaboré mbooleem daayira yi nekk ci Amérique yëpp kon yaakaar naa nekk na loo xam lu am solo la bu ñu teewee fii tey teew fi ak suñu mbokk yi waa Air Sénégal am ab pàcc la boo xam mënut a ñàkk ci société bi ndax dañ koy aajowoo ndax suñu borom moo wax ni wa taxmilu asqaalakum ila baladin lam takunu baalixi illa bi shiqil anfus maa leen xéewale xéewal yoo xam di ngeen am lu leen di yóbbu ci réew yoo xam te ni mu du ngeen fa woon mën a àgg bu dul woon loolee kon yaakaar naa loolu tamit pàcc bu am solo la ci société bi su kon suñu Maam Moor diaspora bi moom amul luñ ko fayee amuñ luñ ko fayee ndax la Cheikh Mouhamadul Mourtada waxoon rek ndax liggéey bi imtidaad la ci Sëñ murtala ndax Sëñ Tuubaa mi ñaanoon yàlla mu yaatal ab liggéeyam ci yonente bi tudd al murtada Cheikh Mouhamadul Mourtada ñëw yaatal liggéey booba yaakaar naa kon hasard amut la Cheikh Mouhamadul Mourtada waxoon bañ koy yërëm ci mag gi ak néew doole gi ndax jaamu yàlla rek la itteewoo woon mu ni donte damay ñëw kenn nit di tuub di dugg ci diine sax jaroon na rek ma déplacé wu ñëw ba fii ci yéen kon loola courage encouragement bo encourage bo courage boobu suñ mam suñ Mourtala nekkoon suñ mam Mor loolu la jël yokk ci loo xam ni ku nekk gisal na ko sa bopp ndax yaakaar naa suñ Mourtala yemut ci di former ay nit ngir ñi woote ci diine yemut tamit ci tuubal ay doomu aadama waaye dafa amoon plateforme boo xam te day jàngal nit ñi seen diine bañ dégg ko diine ji wér ngir li yàlla wax ni wala yunziru qawmahum ida raja'u ilayhim la'allahum yaxdaruun yàlla wax ni maanaam ñëpp buñ jàngi waaye na am ñu jàngi ñëwaat buñ ñëwee nag message bi ñu yor ñu jàllale ko ñi nga xam te ne jot ñu mooy mën a dem jàngi ndax bu ñëpp jàngee société bi day daanu moo tax mu ni kon suñu murtulaa jël loolu def ko muy symbole tey booy dugg fii ci ndaam nga xam ne mooy nday école yëpp da ngay gis mu bind wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil xayli aaya boobu boo ko musaa gis depuis 11 septembre da ngay daw ndaxte turhibuna la wax da ngeen ci terroriser noonu yàlla yi waaye suñ murtulaa jël na aaya bi firi ko firin woo xam te ni tey tubaab yi ci seen bopp aaya boobu xam nañ la muy firi déggaan nañ ko bu baax a baax ci suñ murtulaa mbàkk te mooy jàngale diine ak woote ci lislaam sans violence waaye jàmm rek ak xéewal ba xam tax na maanaam tey murid suñ tubaab yëpp moo xam ci mboolem état yi ak New York bu bambadee bi ak ñoom ñëpp àndandoo di wax laa ilaaha illallaah Muhammadu Rasulullah te kàdd googu am na nay jamono ku ko wax ñu ragal la waaye suñ murtalaa fexe ne ba transformé ko yóbbu yóbbuwaat ko ci jàmm ji ko yonente bi indee woon muy doo commencé loolu nag kon suñu maam moor ci suñ maam moor it lii mu fi def ku ne gis na ko liggéeyam li ko gën a itteel mooy xam-xam ak diine moo tax mu formé fii ñu nekk tey di mu taxawal université bu mag bii nga xam te nii mooy daarul alimil xabiir nga xam ne suñ suñ tuubaa da ko sosoon ngir jàng tegoon fi suñ daam abdourahman loo ngir muy jàng ak jàngale ak di yare ba fi la yare ñu baree bari ci njaboot suñ Tuubaa yi kon suñu maam Mor bu ñëwee loola suñu Murtala sosoon ko mu ñëw taxawal fi université bu mag bi tuddee ko kulliyatul ulum diiniya maanaam faculté des sciences religieuses yaakaar naa am solo la ci wàllu diine ak ci jàngale waaye lu am solo la ci créer tamit emploi ci wut ay liggéeykat ndax ku ne xam na ni ñun arabisants yi daa génn di jàngi buñ musaa ñibbi dañuy jaaxle lool waaye tey ku jaaxle suñu Maam Mor mën laa jël ngay jàngale ci université bi te loolu rekk loo xam impact bu am solo ci ndaw ñi kon nag daayira yi nga xam te ni ñoo fi teew tey ñoom it taxaw seedaanuñ suñ Mame benn yoon ndax suñ diggeelam dañuy diglu lii firnde la ci ndax ñi ñi jiite FONCAB ñi ngi nii toog ñi jiite Mika ñi ngi nii toog mag ñi sañ New ñi ngi ñu ko tuddee rek tudd ñëpp waaye suñ Pape Dramé mi nga xam te nii nag mooy Mika tamit di liggéey liggéey bu am solo ci ci ci ci ci ca New York mi ngi nii toog kon kon yaakaar naa lu am solo gi noonu xëy na ubbi la woon rek waaye daal suñu Mame Mor daal diaspora bi amuñ fayam ndax message bi mu leen di jox année bu jot rek nga xam du ci tàyyi du ci sonn message boobu saa yu ñëwee jox leen ko danañ ci dund naan ci ba déwee naat di ko xaaraat kon xam naa ni bu mbokk yi duggee liggéey bi dana gën a fes dana gën a leer incha allahu taala jërëjëf euh, sëriñ Khadim euh, Bousso yaakaar naa ne euh, moom it indi na tënk na liggéey bi ca départ ba ak Cheikh Mouhamadou Mourtada yàlla ñu ko yàlla fayal ndax vision ak gis-gisam dafa sori lool tubarkalla macha allah waaye nag Euh, ndok bi nga xamee ne waajal na koo xam bi mu ñëwee day fekkiwaat fa sëñ murtada tolloon mu soqwaat ci ay jeego kon dañuy dem directement ci waa mika ak euh, sëñ Pape Dramé mën nga jël euh, micro bi sëñ Pape micro boobu ci bismillah sëñ Pape Dramé yow it lan nga mën sof soof ci kàddu yi nga xam ne la docteur Khadim wax ak mika boo doon tënkal mika lan nga ñuy wax sëñ pap bismillah auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah uh, sëñ Cheikh Amar uh, sëñ Jigal professeur uh, yéen ñi Ust Program bi ñu ngi di nuyu di leen ziar bu di nuyu it ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi bokk ak ñoom bi di ci jiital suñu doyen sëñ Habib Diom jiite nooru daare ni bokk ci magi taalibe yi ni imam Xaadim Wahai. di ci tegit imaam Xaadim Bousso mu ngi suñu imaam ratib euh, moom it nekk euh, jàmbaar lool ci liggéeyu Serigne Touba bi di ci teyit suñu mbokk yi di waa Foncap euh, sëñ Saliou Diop di nuyu bu baax tamit sëñ Mbacke Cuun di nuyu bu it sëñ Thiam sëñ Xaadim Thiam ak it sëñ Samb di sëñ Xaadim Samb di nuyu bu baax tamit waaye Air Sénégal ñoo xam ne suñu ay partenaires lañ di rafet lu baax jataay bi euh, kon ci euh, enchaîner rek ci question bi nga laaj lan mooy Murid Islamic Community in America euh, Mika kon loolu lay firi Murid Islamic Community in America mbooloo mi nga xam ne day dajale murid yi nekk ci Amérique te loolu juddoon kon depuis 1988 ci ndigalal Cheikh Modou Mourtada mi nga góor yàlla kon yoon ba mu ñëwee woon Amérique euh, ci 1988 euh, nekkoon euh, lu rëy tamit yëkkati woon ko daanaka sëñ Xaadim junj ko sànq ne sëñ Sëriñ Tuubaa ci boppam moo waxoon ne suñu borom dana ko yaatalal lislaam jaarale ko ci turi yonent bi nga xam ne mooy al murtada doomam ji nga xam ne it moo tudd al murtada nekk caatam ci góor. ba mu fay ñëw kon 1988 wax nañ ne ci li ko yëkkati woon ci ndigalal euh, Cheikh Abdoul Ahad la woon euh, ndax it boo fekk na mu siiw ci Chicago ci université bu fa nekk wax ne kat Serigne Touba bi mu demee ci géej gi fa des ñibbi siwuloon euh, nee nañ Serigne Abdoul nag xewaar bi mu ñëwee ci moom mu jokkoo ci ak Serigne Mourtada xamal ko nag kon moo féete bitim réew di wane Serigne Touba jaadu na kon mu dem ba foofu. buñ gisee carte d'identité xam ne kii kat waaye juróom mooy Serigne Touba mi ñu wax ne des na ci géej gi te mu ngi gane àdduna 1920 kon ñu xam ne loolu kon euh, day dindi tuuma boobu euh, ñëw bu ree nag la fa ñëwoon euh, bi mu ñëwee fekk na kër Serigne Touba yi booba juddoogul ci bitim réew waaye nag daanaka doomi Serigne Touba ak seexam yi amoon nañ ay mbooloo ci bitim réew bi mu ñëwee nag mu ne kon mbooloo yooyu yëpp. ñu mel ni waa kër sëñ Mourou Moustapha mel ni waa kër sëñ Fallou waa kër sëñ Baara euh, waa kër sëñ Basirou euh, noonu kon waa kër sëñ Abdoulaat sëñ Abdou Borom dër bi euh, ñu mel ni waa kër sëñ Saliou ñoom yëpp kon amoon nañ fa ay daayira Cheikh Serigne Touba it maam Cheikh Rahma Fall ku mel ni sëñ Ibrahima Mbacke borom daaru ak rakki Serigne Touba yëpp amoon nañ fa ay daayira mu ne nag kër yooyu yëpp lu baax la. ñëpp lañ nekk nañ ko téye waaye nañ am mbooloo mu nga xam ne ñëpp ñoo ci daje loolu kon mooy nekk juddug Mouride Islamic Community America loolu kon di dem ba ci at yi wees tamit ci yaatalu euh, Cheikh Mamor Mbacké mu ne yaatal boobu kat baax na ni ko sëñ bi boole woon ci biir New York jaadu na kon mu yaatu it dem ci état yi ñëpp boole seen bopp euh, tënku ci toolu l'islam bi nga xam ne Serigne Touba mooy suñ jawriñ noonu kon la FONCAB juddoo fondation Cheikh Ahmad Bamba ñu xam ne ñu bokk benn jawrin ñoo bokk tool bi ñoo bokk lenn lu ñuy liggéey waaye ak yaatal rek la waaye ñu bokk ndey ak bàyyi lañ nekk ci toolu Serigne Touba bi di liggéey ñoom it ñuy rafetlu bu baax a baax a baax jéego yu nga xam ne ñu ngi koy def euh, ci euh, loolu nga xam ne euh, Serigne Mourtada Mbacké yàlla na ko yàlla yokk leer moo ko sosoon sëñ maam war ñëw yokk ko bu baax a baax. kon nag bu ñu dajee fi tey ñëw di ziar si sëñ Maam Mor Mbacke waaye tamit bu war a ziare ji sëñ Mountakha Mbacke xalif général des Mourides ñëpp àndandoo ko mu mel ni kon Mourides Amérique yëpp ñoo dajaloo ñëw di ko ziar si loolu nekk na kon jëf ju am solo yoo xam ne lu ñuy saluer la euh, te di rafetlu di di ko rafetlu bu baax. di ñaan yàlla euh, mu yokkute gën gën jëm ci kanam. kon daal mën na jëm foofu ci euh, introduction bi. Mhm. ba kàddu gi dellu siwaat jërëjëf. jërëjëf jërëjëf euh, sëñ pap Dramé moom moo nekk euh, Mika euh, dégg ngeen ko dañuy ñëw ci fondation bi fondation bi sëñ Fallou Samb moo ko jiite mais yaakaar naa sëriñ Saliou Diop mu ngi fi mu ngi ci mu ngi ci jataay bi dañu koy jox kàddu gi sëñ Mbacke Thioune it yaakaar naa mu ngi ci jataay bi moom it nañ jox sëñ Saliou bu noppee ñu jox sëñ Mbacke sëñ Saliou kon euh, yow it dañ lay bàyyi rek nga euh, nuyoo euh, présenté ñu tuuti it liggéey bu am solo boobu nga xam ne yéen a ngi koy def ci sa fondation Cheikh Ahmadou Bamba hmm. bisimilah. ok bisimilah misaani rajim bisimilahi rahmaani rahim salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñu leen di ziare te di leen baax yàq ci baal di baax te sant bu baax nag ci jotaay bi. jiital ci cant googu suñu suñu mën suñu maam Mor Mbacke ibnu suñu Murtada ndax ginnaaw yàlla ak yonent bi lépp lu am murid man ca Amérique waajurum tedd wala muy Seex Murtada yal na yàlla yokk ay leeram jërëjëf ci barke bi Tuubaa mooy mu ñëw feddali ko laxasaayu ci dëgëral ci kon nag ñu ngi koy ñaan yàgg fi lool te ànd ak lépp ko ñun di tedd ji nga xamee ne mooy sëñ Muntaxa macha allah borom mbégte mi di ko ñaanal mu yàgg fi ci ànd ak wér ànd ak koog jullit yëpp ak murit yëpp jërë ci barkeem Tuubaa di jiital ci jataay bi nag di nuyu sëñ Xaadim Bousso imaam Xaadim Bousso suñu xarit di suñu lépp macha allah ah, di di imaam ca Mika New York nag sëñ Xaadim ñu ngi ziare di di teg ci ziar bi sëriñ jigal mais xamee ne mooy présenté fii sëñ Maam Moor sëñ Amar jiite ko ñu leen di nuyu di leen di di dem si waat ci ci taabal bi ziare seen lool ak yar macha xam ne sëñ sëñ Cheikh di ko ziare ñu yore si euh, daayira Nooru Daarayni sëñ allah di di magum taalibe ñu ni teguñ teguñ ci yoon ndax ku ñëw Amérique New York nga njëkkee ci ñoom ñii nga dal ci ñoo leen ñoo teg ci yoon ba nu ñu demee ci yeneen état yi ñu ngi leen di ziare bu baax baax di di sant bu baax nag jataay bi macha allah waaw waaw di ci teg di jël si waat nag ci ñu baax ñii ñu àndal muy euh, euh, waa waa waa waa FONCAP waaw waa FONCAP euh, ci njiitul sëriñ sëriñ sëriñ Fallou Samb di jëwriñ ju mat jëwriñ macha allah jëwriñ ju paseefu ànd ko ñun nag ñoo ñu fi yabal fii waaw ah, kon nag ñu ngi ziare sëñ Fallu mu jàllale ñu ko ci jëwriñ yëpp yi xam ne nekk Amérique ak ak ak Canada ah, kon nag ah, di ci di ci teg sëñ Mbàkke Cuun mi xam ne moom lañ àndal ak sëñ Kayti Caam fekk si waa ñi nga xam ne ñooy ñooy yor ñoo ñu nekkal fii ñu sëñ Xaadim Caam di di di président wu FONCAB Sénégal ànd ak secrétaire général bi sëñ Xaadim Samb ziare di del si di ziare waat waa waa waa Air Sénégal ci jataay bi ñu nekk ak ñun ndax euh, ab tukkikat moom war naa ànd ak euh, waa ah, airline waaw rawatina nag sa dëkk kon nag ñu ngi leen sant bu baax ci feeñu bi ngeen ñu feeñu ak approche bi ngeen ñëw ci ñun ñu ngi ciy sant bu wér a wér a wér di ñaan yàlla ñu ci Serigne Touba nag yëg ko ñëpp gis seen bopp kon nag sant nañ bu baax a baax ci jataay bi kon nag xam naa ñu ngi sant ñëpp gërëm ñëpp xam naa ñu ngi wàcc suñu kàddu foofu ba ñu ba ñu jotaat parole bi incha allah jërëjëf. jërëjëf sëriñ euh, euh, Serigne Saliou euh, ñu fàttali mbokk yi rek tey ñu ngi fii ci jataay bu am solo boo xam ne ni ñaari kuréel yu mag ya nekk ci Amérique di liggéeyal Serigne Touba ñoo fi daje ngir lan jébbale seen liggéey ci Serigne Touba Serigne Mountakha Mbacké ñu di ko ñaanal mu yàgg fi ànd ak wér. di ko jaaree waxtu wu nekk nag ci Serigne Mamor moom Cheikh Mouhamadou Mourtada ndax ñoom ak Serigne Mourtada démb la woon tey doog a ñëw danañ ñëw ci kanam tuuti nag ak mag ñi nga xam ne ñoom la fa Serigne Mourtada fekkoon ku ci mel ne sëñ Habib Diop waaye sëñ abib jom waaye nag euh, dañuy laaj rek euh, sëriñ euh, Mbacke Thioune mi nga xam ne moom it mi ngi liggéey liggéey bu am solo ak addiyatu rahma loolu it bëggoon nañ mu leeral ñu tuuti ci kuréel googu. ñu duppee adiyatu rahma ak loo xam ne mën nga koo sof rek ci kàddu yi nga fi jot a jéegu sëñ Mbacke bisimilah mun ngaa jël euh, micro boobu euh, yow rek la déglu en direct ci rajo université Cheikh Ahmad Bamba voilà boo ko xëccee mu ñëw boo la gën a jegee wax ji dina gën a leer incha allah waaw sëñ Mbacke Thioune bisimilah waaw. bisimilah mina seytaan rajim bisimilah rahmaani rahim wasalaatu wasalaam euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa waaw ñoo ngi suñu cadeau di cadeau sante ci li ñu fek ci contexte bi ñu mu amé sion bo xam bu reuy la ñu ci sargal wa université bi euh, wa ukap TV muy innovation de taille bo xam pour la première fois li ñuy ci addé yi ñu ko lii ab jéego la boo xam ne bu rëy rëy la ni nu hoste fii ci saal bi ñu am ay kàddu yu nuy yëkkati ak leeral lii moom vraiment liggéey bu rëy rëy la ñoo ngi leen ci sargal di leen ci félicité waaye nag ñoo ngi tàmbali suñuy kàddu sax foofu leen waroon a njëkkee tàmbali bi ci ci nuyoo ak ziar euh, ziar bi di ko jël di ko teg ci loxol jëwriñu liggéey bi di Cheikh Mamour Mbacke Euh, mu jàllale ko ci sëñ Muntaxa Mbàkke xalifatul général wu murit euh, di ñaan suñu borom yàggal ko fi euh, ñu yàgg ànd ak moom ci liggéey bi nga xam ni ci la ne waaye jataay bi jataay bi am kilifa di sëñ xaadim sëñ xaadim ñoo ngi lay siyaare di la nuyu yowit di ñaan suñu borom yàggal sa taxawaay liggéey ba ngay liggéey ci ñun xam nañ ko gis nañ ko dooleel nga mbépp burit boo xam ne ma nga Amérique yaa ngi koy continuer loolu même temps bi nga nekk fii ci Sénégal yaa ngi bàyyi say itte ñëw ak ñun ci liggéey bi kon ñoo ngi am mbégte di la gisaat ci sun biir waaye ñoo ngi nuyu euh, jëriñ euh, Papa Cité Dramé euh, mika ka ànd ak sunu magum taali bi sëñ Abibu ñoom it boo leen gisee rek sa xel dal di rafetlu kàddu yi nga xam ni jëwriñu liggéey bi tey jii di addiye ji nuy joxe chaque année sëñ Saliou at yi moo koy jiite moom it mu koy defee anam boo xam ne bu rafet la euh, di am mbégte it ci sunu collègue yi nga xam ne ñoom lañ àndal di sëñ Xaadim sëñ Xaadim Caamit moom it mu taxaw taxawaay bu rëy rëy fii ci lépp loo xam ne fondation baa nga ko ŋànk di ko liggéey ca réew ma sëñ xaadim nekk euh, ralonge fondation bi fii ci Sénégal ànd kook sëñ xaadim Samb ak ñi mu nekkal ñépp waaye di nuyu it waa Air Sénégal waa waa Air Sénégal xam naa ni dafay gëna yaatu sax ndaxte duma ci xaw a sori yàlla xam na ni euh, sama billet bi ma ñëw fii ci fii ci Amérique fii ci Sénégal Air Sénégal nu ko jox free jox ko jox ko fondation bi noonu lañ ko defee it waa Mika man mii la yàlla def fondation bi man leen jox billet boobu sax ma ñëw ci toog loolu rek muy élément de taille boo xam ni euh, wax ko rek am na lu mu firi lu bari waaye sëñ Cheikh Amar ba ma ba ma tàmbalee di euh, euh, di leen sargal ci ci initiative bi ngeen jël yaag sunu sunu xarit sëñ jigal yaa may laaj question boo xam ne bu ma ci duggee danaa xóot danaa xóot ca jataay bi yaatu na bëggunoo monopoliser micro lu xaw a yàgg mm-hmm. ma bëggoon rek indi ci ay leeral yoo xam ne yu gàtt lay doon mm-hmm. bala bala noo defaat tour de table bu fekkee dana ñëw ci noonu Pape Dramé eh, indi na bi mu ci daaneelam rek dafa wax wax bu rëy rëy dafa indi Mika contexte historique gu Mika indi ko waaye teg ci fondation bi ni mu juddoo eh, ñu ànd kook sëñ Mamor état yi ne ci États-Unis yëpp eh, yi nekk ci yeneen gox yi dajaloo toll ci ñeen fukk euh, tënku ci benn tënk àndandoo mu jur fondation euh, Cheikh ahmad Bamba of North America muy état yooyu nekk ci Amérique ak Canada donc loolu il fallait ñu préciser loolu ni juddi bi contexte bi sax du ma ci xóota xóot ndaxte xëy na tey ji euh, porte parole bi moo fi waroon nekk pour gën a détaillé loolu waaye Pape Dramé brossé ci nag ci loolu yàlla def nag man ma nekk ci boppu euh, euh, organ département commission boo xam ne bu rëy la ci fondation bi di commission sociale commission sociale mu mel ni dafa am pàcc boo xam ne da am na wutur ci ci États-Unis waaye am na wutur ci mu ngi koy bëgg am ci àddina bépp muy mbir moo xam ne mbir mu am solo la mbir mu diis la mu difficile muy ñun ñi nga xam ne yàlla dafa def ñu nekk bitim réew. buñ fa musaan di wàcc bu fa nit heure musaan wàcc liggéey dañ daa am ay jafe-jafe au point de vue temps au point de vue euh, financier pour rapatrier corps boobu mu ñëw ci Sénégal fondation bi am inspiration wu dés et définir benn programme programme boo xam ni dafa lalu ci diine programme boo xam ni dafa lalu ci jàppalante ba nga xam ni problème boobu Sénégal yu bari doon euh, am du rek sénégalais. Mm-hmm. yeneen xeeti réew sax ku fa mus a wàcc liggéey. Mm-hmm. Euh, daan ko am léegi indi nañ ci saafara saafara boo xam ne ñëpp reconnaître nañ ko loolu indi hadiyatu rahma ñuy def ay contribution yoo xam ne ñoo ko fixeel suñu bopp euh, saytu benn programme boo xam ne ku fa ku fa wàcc liggéey rek dootoo fa taxaw du am ay ket du am ay ay ay laaj fii dañ ko dañ toppatoo kooko ci anam yoo xam ne nu mu gën a gaawe ba delloo ko ci réew mi sëñ Cheikh damaa bañ a guddal waaye loolu ci buñ ci diggatee danaa mën a ñëw ci spécificité wu euh, programme bi détaillé ko nu mu gën a leere kon damaa bëgg a tënk fii samay kàddu pour mayaat ñeen nit ñi chance kenn ku ci ne sotti ci kàddu asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf euh, allah Eh, am na solo dinañu dinañu dellu siwaat incha allah ci beneen tour de table ak eh, sëriñ Mbacke Thioune ndax li nga wax dafa am solo te loolu rek mooy li Serigne tubaa santaane lépp lu ngeen bëgg a defati dee leen def nii keroog ba mu laajee murid di ñaar fukk ak juróom-ñett dafa bëggoon lépp lu ngeen am ci lu ngeen war a lijjanti balaa ngeen sukkandiku ci keneen ngeen sukkandiku ci seen bopp loolu jaafa naa ne ci loolu rek ngeen nekk te lu am solo la te ñëpp xamoon nañ ne nag loolu ay jafe-jafe la yu yu tara tara tar laataa may ñëw ci ñoom sëñ Xaadim dama bëggoon a laaj euh, sëriñ euh, Habib joom sëñ Habib joom ñu ngi lay ñaanal ak di ñaanal ñi nga àndal ñëpp ñu yàgg fi te ànd ak wér yow du Mamadou Mourtada góor yàlla daf leen a fekk ca bitim réew yaakaar naa sëñ bi wax na léegi 1988 jàpp naa ne jamono jooju. contexte bi États-Unis d'Amérique nekkoon jamono ju doy waar la Cheikh Mamadou Mourtada wàcc fa maa ngi dégg sax ñuy wax ne Harlem jamono yam fay ñëw kenn buggul woon a ñëpp dañ doon jaay seen kër yi di gàddaay sëñ wax Cheikh Mamadou Mourtada ñëw Harlem samp fa liggéey bi tey Harlem mbokk ci dëkk yi nga xam ne nii ñi ami koppar sax dañuy wëlbatikuwaat ñëw di fa jéem a dëkkaat euh, sëñ loolu rek euh, mun nga jël micro ci sawet yow it waaw bu ko defee rek li nga fi jot a dégg yow eh, jataay boobu ngeen daan amal ak Cheikh Mouhamadou Mourtada ak jataay yi ngeen daan amal ak sëñ mamoor ak jataay bii ngeen amal fii ci rajo université Cheikh Ahmadou Bamba di liggéeyu góor yàlla ba tey ban jàngat nga ñu ciy defal laataa may ñëw ci sëñ Khadim Thiam ak sëñ Khadim Sam bisimilah si Habib. mboolem koo xam ne yaa ngi bitim réew ah, tey moom mënumaa wax lu bari ndax mbégte laa am ndax comme nu ko waxee rek eh, Sëriñ Tuubaa laa wax ni moom li mu am na ko waaw loolu moom am moom man am naa ci lu ma leer ndax eh, fi ma koy fi ma koy firndeel rek eh, am ni mu tase ci àdduna Sëriñ Tuubaa rek ku mu tase àdduna noonu te loolu mën naa ni mi ngi mi ngi soq ko ci Sëriñ Murtala ndax euh, boo gisee àdduna fi mu ni fépp ami kër ci jamonoy sëñ Tuubaa rek laa mi waaye amu woon lislaam yàgg naa bëgg lu mel noonu yonente bi fu ne yóbbu na fa ay saaba waaye mosuñu am loolu sëñ Tuubaa la ko yàlla jagleel te di ko jaara ci sëñ Murtala ni nga ko waxee rek euh, bi sëñ Murtala bi muy ñëw euh, Amérique ñu nekk boobu quatre-vingt-un ñu nekk fa bu ñëw fekk nu fa boobu dëkk bi kenn ku ne boo xasee génn rek fi nga dugg doo génnaat fépp même ah, comme li nga wax foofu ne ah, sansees boobu day jamono yoo xam ne bi boo fi ta bu fi ku fi weex sax bu fi jaaree day daw ndax boobu ku fi génn rek dañ lay dañ lay kar waaye yàlla dimbali nu ci baaxu Seexul Xadiim mu andil nu jàmbaar ju mag ji di nga xamante ne bii Sëñ Tuubaa da ko waajal mu Seex Murtala mu ñëw ci ci réew mi ci jamono jooja mën naa ni kere ba mu ñëwee ah, bis boobu dama ko fàtte mu ko kere mu ñëwee di teg xeeru kër sëñ kër sëñ Touba gii tey ba mu ñëwee eh, sëñ booba sëñ As ngeen sama kër la dal ah, sëñ As dindi kaalaam loolal sëñ Moutala benn xeer benn benn benn muul lañ mu toog eh, gas ba mu xóot mu ñaan tef li jàng leen kaamil bi ci lañ jàng kaamil surtout ko ci kër googu. boobaag léegi sii mën ngaa lim ni li fi nekk ci ay kër ci addu ci ci Amérique musul am ci àdduna moom moo kër googu moo yoon kër yëpp nag. mu di tijaani muy murid lu kër goo fi dégg rek kër goo ko yanu loolu moom am naa ci lu ma leer ndax genn ku ñemee taxaw fenn kër daje kër amul nu fay nekk di fa daje saa su ne waxtu wu ne suñu Murtala bu ñëwee bis bu nekk day fees foofu kenn du foo jaar yàlla attinu dimbali defoon nu ba defoon nu Bamba dey nga xam ne bii kenn mësul xalaat taxaw di di di di di di di booloo di ànd rawatina tudd yàlla di sikkar ah, fukki bolog ak juróom nu koy sikkar loolu suñu Murtala ko fa def kon la mu bëggan la sëñ Touba bëggan sëñ Moustapha defal na ko muy muy lislaam ji yokk ju delluwul ginnaaw te ñëpp dañuy seen bët mooy andi jitaay bii tey te moom mbégte rek laa ci am ah, xam naa ne tey sëñ Touba xolam na sëñ Mourtala xolam sedd na sëñ Maam Mor la gën a xolam sedd ndax ndax ah, mbooloo li muy neex neex neex neex mbooloo mu dégg wopp doole lépp mbooloo nag lu bala ñoo am doole dañoo ànd waaw mbooloo lu mu rii rii dañ wax ne ak ak bokk lu mu neex neex ak lu mu rii rii niñ déggoo rek te lii mooy loolu kon nag sama xol sedd na guy sëñ Pape Darame ñu ngi lay nuyu di la siyaare moom moom wax dëgg yàlla sama rakk la waaye ku ma di ku déggal la ku jàmbaar la ku nangoo sonn ci liggéey bi la waaw sëñ xaarim ne moom du ma ko tudd moom ñëpp dañoo maa féetale ak moom moom ndax man da damaa bëgg waa mbusoo bi waaw ndax ndax euh, am naa ci lu ma ci am lu bari loo xam ame naa ko jotaay bi daal mënuma koo mënuma koo firnde kenn ku ne daal def naa ne sama bopp ngir jëm yàlla ak seexul xadim ndax fii ay taalibe sëñ tubaa rek bëgg a liggéey sëñ tubaa nu fi waaye nan sant yàlla sëñ tubaa bi mu bi mu bi mu wuti taalibe wutul taalibe rek ku jébbalu ci moom daa bëgg foo nekk fu ne nga nga nga nga nga nekk fa ab ab saaba boo xam ne bu ëllëgee danga nga naan lii màgg ko defal waaye jébbalu rek taxu di ful de sëñ tubaa daa bëgg a tas àdduna ci bépp loolu tax taalibe yemuñoo kenn kenn ku ci nekk am nga la war yaa xam na nga koy doxe ak noo ko doxe waaye am nga la war doo ko seq sëñ Tuubaa du njébbal rek sëñ Tuubaa ji ku ñi ñi jébbalu sax am nañu li euh, seen aajo faj na rawati nag nun nun kenn ku daa war a def loolu daal laa doon ja euh, tànn ci kàddu yi ñu ngi leen siyaare di jéggalu bu baax a baax xam naa damay xaw a damaa bégte daal moo tax mënu maa wax lu bari daal jërë ngeen jëf jërëjëf jërëjëf kàddu yooyu mëntoon a ñàkk ndax euh, fekkee dafa am solo te jàpp naa ne contexte aussi lu am solo la ndax comparé ñaari jamono yooyu day wane euh, vision wu euh, Cheikh Mouhamadou Mourtada waaye it day wane universalité Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasoul dañuy ñëw aussi ci euh, Khadim Khadim Thiam Khadim Thiam yaakaar naa ne même seen tur yi sax da dul hasard ak Khadim Samb ñoom it jàpp naa ne dañoo ñëw yaa ngi koy wax léegi doon ay ndaw dem jàngi waaye njàng mi it gis nga ba dafa mel na lañ doon jàngi sëñ Tuubaa taxoon ñu di ko jàngi tey tey ñu ngi wëlbatikuwaat di def liggéey bu am solo daanaka donte leeraguñ ko ci biir liggéey bi nga xam ne dañ koy liggéeyal sëriñ Tuubaa Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul euh, sëñ Xaadim bisimilah kon nga jël euh, micro bi euh, bisimilah waaw nga jël micro bi yow it rek wax ñu dayob liggéey bi ak it sa gis-gis ca jamono ya ngay ñëw di jàng si fekk fa si ay mag ñoo xam ne vraiment dimbale nañ leen ndax tey tax nañ au moins seeni repère réerul ndax lu am solo la nga jóge ci sa dëkk dem ci beneen dëkk fekk fa diwaan boo xam ne mun nga ñëw muuwaar ci biir bala nga doon jàng bu sottee nga dellu soit ci di leen jëriñ bisimilah sëñ Xadim. waaw salaamaaleykum wa rahmatulah euh, di ziar ñëpp di jiital si ziar bi euh, sëñ Mamor euh, di ziar tamit suñuy jëwriñ yi nga xam ni ñoom nañ bokkal plateau bi. Euh, di ziar suñu jóorin euh, sëñ Fallou Samb euh, li tax ma gën a bég ci jataay bi ndaxte man bi may egg si New York 94 la woon donc fekkee naa visite Serigne Mourtada yal yàlla yokk leeram 94 def un an dem dem dem Californie maa ngi woon San Francisco Silicon Valley waaye at bu jot dama daan ñëw fële New York donc ba dernier ñëwu Serigne Mourtada Euh, New York at bu jot dama ko daan fekkee te ñoom ñi ñoo ñoom laa fa daan fekk maa daan représenté euh, daayira euh, San Francisco Oakland fële ci ci nganu sëñ Murtala bi foofu sax laa xamee xamante woon ak ñoom sëñ Kayta Caam ak ay ñoom sëñ Saalib ak ñu baree bari moo tax bi ñu demee ba suñu borom dogal fonkaab am ba mën si bokk dama dama santaat bu baax a baax a baax na tàmbale fee ba noppi Euh, teg beneen tànk fee ñu dem ba ñaari tànk yi nekk ci benn benn jëmm loolu mbiru Serigne Touba dëgg la mooy li nga wax li sëñ Touba bëggoon moon euh, am na ko di sant tamit sëñ Xaadim di ko ziar moom sama Serigne la boo nekk sama mbokk euh, ndaxte suñu maam yi benn la ñu woon ziar sëñ Saal bi nga xam ne moom moo jiite délégation FONCAB bi dénk ko kii organisation hadiya bi ak sama jëriñ sama partenaire sëñ Mbacke ak euh, sëñ Xaadim Samb bi nga xam ne mooy secrétaire général bi pour nag taxawaay mu rafet lool ci euh, ànd bi ñu ànd yore euh, Foncab Sénégal ak suñu jëwriñ ñi nga xam ne ñoo jóge ñoo ak ñëpp daal bàyyiwuñu kenn comme ni ngeen ko waxee Foncab fondation Cheikh Ahmadou Bamba Amérique ak Canada foog ñu ko si boolewaale ndax ñoom tamit ñu ngi si liggéey bi bu bu baax a baax liggéey yu am solo la la ñu liggéey ñun nag ñun ñooy seen bras armé bu fekkoon bras armé la woon fii fii fii Sénégal Euh, nga xam ni lépp loo xam ne ñoom ñu ngi koy def nga foofu Amérique rek euh, ñun ñoo leen ko yoreel fii Sénégal kon ànd bi nekk benn euh, di xàccandoo di dóorandoo ndaxte nit ki mënoo nekk fépp ñoom la nga xam ne ñoo ngi ko def Amérique ñun ñi la waroon ñoo ñoom tamit ñi nga xam xam ne ñun ñu ngi ko def fii ñoo ñoom la waroon donc ànd bi nga xam ni moom la sëriñ bi namm daanaka daf koy firndeel rek Euh, bu ñu ñëwaatee ci euh, wàllu wàllu wàllu FONCAB FONCAB Sénégal xam naa foofu laa njëkk tàmbale euh, ndaxte ñun moom lañ yore fii bi ñu njëkkee gis dayo bi nga xam ni moom la liggéey bi am am ci Amérique ñu bëgg ko eggale fii ndaxte waa Sénégal dañuy dégg ne murit Amérique ñu ngi yëngatu waaye leen donc lañ ci xam mooy benn événement bi nga xam ne moom mooy am at bu jot déggale murit yi ndaxte liggéey bi loolu benn benn jéego bi la rek waaye weesu na ko donc pour mu am foog ñu am représentation fi Sénégal ba noppi tamit ñu leen di leeral li nga xam ni moom la ñu def foofu euh, te nit moom bu fekkee da ngay nekk ci mbir foog nga teg ko ci yoon ndaxte FONCAB bu euh, Amérique dafa dafa dafa am euh, dafa topp li nga xam ne mooy mooy base légale li ñuy wax li nga xam charte réew mi daf ko daf ko topp ñu ñun tam bi ñu fi ñëwee bi liggéey tàmbale ñu ne balaa ñuy def dara tamit loolu la njëkk def donc FONCAP Sénégal euh, jaar ci association Cheikh Ahmadou Bamba dafa am base légale Sénégal reconnue par le ministère de l'intérieur. intérieur xam nañu am suñu ay ay kayit légal nga xam ne état daf ñu reconnaître ba noppi li ñu def yëpp ñu ñu ñu teg ko fi nga xam ne charte yi am Amérique ñun moom dañuy euh, wéyal fii euh, fii fii fii fii Sénégal ba ci euh, compte bancaire rek ba lépp li organisation boo ñëwee di nga xam ne li organisation murid la waaye bu bu bu tege si yoon la loolu lañ njëkk a dox te suñu borom defal si ci jàmm ba nga xam ne bis bu nekk day gën a jëm kanam ñuy tamit ànd di fësal liggéey bi nga xam fële bi am fële euh, boo seetee yi fi jotagum am euh, diggante daaw ak ren rek am na soo lool benn bi mooy euh, kër Serigne Touba fu ne bi nga xam ni fexe ba fépp am ay ay kër Serigne Touba te kër Serigne comme ni ngeen ko ni fi mu nekkee ni mu nekkee New York nekk ko Canada nekk ko fépp lenn des moo ko tax a jóg dundal lislaam boole boole murit yi mm-hmm. yaatal si jullit yi. ba noppi lépp nag tënku ci njàngaleem sëriñ bi ñoom ñëpp ñoo bokk liggéey boobu ci biir liggéey boobu nag ñu bañ a ñoom foofu fexe ba tamit ay nit bu ñuy ànd dañuy jëriñante sëriñ Tuubaa loolu leen tey tey jëriñante ànd bi am na solo waaye jëriñante bi tamit moo ci euh, moo ci moo moo moo ci moo moo si ëpp solo jëriñante boobu si loolu nekk kër sëriñ Tuubaa fu ne yi fexe ba muy nekk ay kër yoo xam ne dañ fay jàngale diine euh, di fa jàngale njàngum sëñ bi di fa jàngale xam-xam te jitaay yi nga xam ne ñun dañ koy am su ma ne ñun mooy murit yi ak jullit yi di ko am feneen ci yeneen bërëbu jàmbur yi di ko luweeg wala di ko ab ak demee noonu ñu fexe ba euh, mu nekk si suñuy suñu suñuy bërëb ba nëpp ña fay ñëw ñu leen di ñu leen di euh, tàggat ni nga xam ne lañ ba bëgg ñu tàggatee ci wàllu xam-xam ci wàllu nekkin ak ci wàllu lépp beneen tamit mooy li sama euh, jëriñ bi euh, sëñ Mbacke Thioune wax mooy hadidu ma ñëpp xam nañ ne euh, jafe-jafe la daan nekk ci rapatriement corps defe naa foo mënti nekk si am adduna bi mhm. jafe-jafe la fi jafe-jafe la fa fa mës nekk donc lii day ñëw rek toftalo si loolu gën koo gën koo saafara tamit ci wàllu éducation parce que nit ki mhm. tamit baax na nga nga defar dundam waaye xelam tamit baax na nga koy defar te li si ëpp mooy mooy éducation mm-hmm. am na ay euh, xasida yoo xam ne ak ay téere yoo xam ne ñu ngi koy jël di ko traduire mm-hmm. parce que man dama daan fàttaliku bu ma nekkaan euh, Californie du durus damaa daan gis ay nit ñu ne ma waa lii li ngay li ngay lii lan la bu fekkee ku dégg arab la comme ay afghan wala ay pakistanais ñoom nañ xam lu mu nekk mais bu dee americain doo xam lan la te yow tamit xëy na xam-xam bi ngay soxla pour pour leeral ko ko tax euh, leeral mbir benn la waaye mu leer ba dugg si xelam ba mu mën ko nangu loolu leneen la te loolu xam-xam moo koy joxe te loolu dafa am ñu ko war a def moo tax traduction yooyu nga xam ni moo am defe naa euh, jawharu nafsi si si la bokk mooy premier état bi ak yeneen ak yeneen ak yeneen beneen bi nga xam ne tamit euh, ndigal book livre boo xam ne day wàllu lépp lu jëm si wàllu ndigal ñu ngi siy liggéey ak beneen bi nga xam ne tamit mooy Euh, sama kemp euh, parce que dañuy gis ne vacances boo jotee école bu tëjee xale yu bëree bëri bëri boo defoon ndànk rek mbedd bi da leen di récupérer wala seen activité wala yeneen donc euh, ndigal ki kii kemp yooyu ma tudd léegi sama kemp yooyu day tax léegi xale yi ñu leen di mën a dajale la nga xam ñoom lañ doon jàng fee muy wéy waaye la nga xam moom lañu bëgg def si ñoom ba keneen du leen jël foq foq tamit li am solo parce que jàpp naa ne éducation boo gisee bu am solo da ngay fexe ba dëkk ba nga nekk kenn du la fa raw ci wàllu àdduna waaye fexe tamit sa euh, sa wàllu jikko ak sa wàllu cosaan ak sa wàllu diine kenn tamit juloo ci ëppale nga xam ne di nga mën nekk imam ba noppi nekk président euh, te loolu laay wax bis bu nekk ñun bi ñuy euh, ñëwaat ci question bi sëñ Cheikh Amar ñu lay ziar tamit baax a baax ak ak sëñ Jigal wax léegi ñun bi bi ñuy bi ngi dem Amérique di jàngi dañ doon naan yàlla amal njëriñ liggéeyal Serigne tubaa man ñun rek loolu rek moo nekkoon si yitte jàng ba noppi liggéeyal Serigne Touba moo tax liñ daan jàng yëpp yëpp yëpp yëpp ñu ngi doon xool naka lañ koy mën adapté mu liggéeyal Serigne Touba donc li ñuy def ne xëy na ndimbal sëriñ bi ñu dimbal rek ba yéene ba nga xam ne moom la ñu amoon mu mu egg waaye lépp lépp lépp lépp sëriñ bi la moom la ñuy wax rek naa ñëpp dox euh, di dolliwaat di sant rek xam naa bis bu ñu demee ba kàddu gi ñëwaat di def gën a yaatal incha allah jërëjëf wasalaam jërëjëf jërëjëf sëriñ euh, euh, Khadim caam xam naa dañuy euh, sëriñ Khadim Samb day sof rek ci ci ci même laaj bi la parce que dafa mel ne laaj bu ngeen mën a séddoo la sëriñ Khadim sàmb ak sëriñ Khadim Thiam sànq ni leen sëñ jigal introduire dafa dafa am solo waaye li ngeen wax it xam nga sëñ Tuubaa moom booy wut légaliste ba yem ci moom rek bio boo nga taxaw moo tax képp koo xam ne nii dañ lay tudd di tudd sëriñ Tuubaa wala loo koy defal li ngay njëkk a def mooy jël yooyu fexe ba méngale ko ak charte barab ba nga xam ne ca nga nekk te moom nga fi wax léegi euh, ci fondation moo xam euh, ña nekk ci Amérique ak yéen ñi leen nekkal fii ci Sénégal sëñ Xadim euh, lan nga ñu mën a dolli ci li nga xam ne moom la sëñ Xadim Thiam wax léegi aussi bismillah di tàmbali nuyu ak

danaka amul but bu lucratif du pour gagner khalis loolu buñ ko créer dafa ñew danaka nek complémentarité si MICA ndax meka dafa nekkon en euh, Amérique te ñep suñu comprendre immigration euh, sénégalais ci États-Unis nu mu démé moy ñi nga xam ñoo fa jitu Amérique mo gëna a Dakar donc ñu jitu biir États-Unis Amérique lañu dal donc bañ fa dalé si début immigration bi nga xamné peut être c'est dans les années 80 le tambalé, nga xamné nigériens yi ñoo ñu fa jitu yenen pays anglophones yi ñoo ñu fa jitu fouf sénégalais yi si début 80 fin 70 soixante :fra fay door ñew ñom danaka pour installer wu euh, carrément donc lolu bu mu amé si ginnaw si gi la yaatu si yenen état yi bu ñu yaatoo si yeneen états yi nak mourid yi jur fa ndax fo leen fekk ci kaw suuf dañuy dajaloo euh, une heure di jàng seen i créer seen kër Serigne Touba donc mën nañu ne kon su boobaa dafa jur euh, bi nga ne moo nekk euh, États-Unis ak Canada waaye FONCAB bu nekk États-Unis ak Canada jur li nga xam Sénégal lay di dem rek donc tey lii dañ koy c'est historique man xam-xam bu ci am ak am ni unification ñaari

te comme na ko sëñ Xaadim waxee North America day include li nga xam ne mooy Canada États-Unis te gëm naa ne dinañ dem ba digg jamono dina include Mexique dem ba fi ñu xam ni mooy Brésil te su boobaa de Americas lay doon jërëjëf kon euh, foofu lay tënkee wax ji di xamale nekk nag euh, li nga xam ne mooy NGO muy euh, organisation boo xam ne amul profit teewaayu fi nga xam ni mooy waa Air Sénégal loolu jar na ñu xamee ko noonu donc collaboration bi nga xam war nañ ko def suñu digganteeg ñoom ñu jël loolu en considération bu baax a baax te xam ni euh, organisation la boo xam c'est à but non lucratif et que vraiment euh, ni nga xam ni ni ñu gën a mën a jàppante pour gën a mën a yombal liggéeyu ki nga xam ne mooy sëñ Cheikh Mbacké Thioune ah loolu dina dina doon loo xam ne ngëneel lay doon si communauté bi mais :fra ngëneel lay doon si sénégalais :fra yëpp ndax %e ah, Aïdatou %e ah, Adjatou Rahma yemul rek si ah murit yi si sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk ñëpp rek waaw ñoo nekk si Amérique ñoo si jëriñoo kon jërëjëf damay gàttal foofu rek te di sant ñëpp ak di ziar ñëpp macha allah jërëjëf jërëjëf eh, fi nga daaneelee dafa am solo ci Adjatou Rahma Euh, mais fi nga daaneele aussi dafa am solo ci nii nga xam ne noonu ngeen dajee jàpp naa ne hasard moom amul bu weesoo lii sax am na yeneen jàngat yoo xam ne war nañ ko def ci seen jataay bi tudd nga léegi li Serigne Mountakha santaane sànq ci euh, keroog ba Hizbut Tarqiyyah ñëwee ci moom parce que lenn la donc Serigne Touba moom mooy ki nga xam ne dafa federe woon jullit yëpp ba bi muy bi muy woote sax wootewul jëmale ci turam wala ci santam waaye dafa woote rek jëmale ci yoon wi nga xam ne moo jëm ci sunu borom Serigne Jigal yaakaar naa ne laataa ñuy ñëw ci Air Sénégal li tax ñu bëgg a bàyyi eh, ñii Foncab Mika eh, wax historique wu eh, la leen bàyyi fële ca diaspora bi ak li moo tax ñu ñu ñu bëgg ñoom bu ñu tënkee Air Sénégal day doog a ñëw ndax tey ba ngeen di sos Adiyatu Rahma xëy na xalaatuñu woon ne dinañ dem ba am suñu compagnie bopp boo xam ne nii loolu day daal di doon responsabilité te mu doonoon loo xam ne lu tumuranke la sa njigal kan la ñuy introduire fii ci biir euh, salle bi yaakaar naa ne war nañu génnaat sax am koo xam ne dinañ parce que soxna it mënuñu leen a ñàkk bañ a boole ci jataay bi laataa ñuy ñëw ci Air Sénégal sa njigal bisimilah. ah jërëjëf euh, sëñ Cheikh ci biir bi ñuy defar tamit dafa am kenn ku ñëw suñu keete jàmm keete moom li nga xam ne mën nañ koo fàttali ci moom rek te loolu jataay boobu kenn mënu koo fàttali. mooy dafa am lu mu doon leeral Cheikh Mouhamadul Mountakha bi mu waxee ba noppi sëñ Mountakha ne ko lii nga wax nañ ko bind. def ko ab téere jox ko mbooloo yëpp ñu ci doxe ba ñu dellu def nañ ko beneen ba ba mu ñëwaatee di wax tam sëñ bi ne ko danga maa yëngal kon kooku sëñ Keeta am ñëw na. sëñ Keeta Thiam nag man li ma ko bëgg a laaj. dina xaw a wuute tuuti ak euh, li nga xam ne mooy sori dafa am loo xam ne boo xoolee jataay bi sëñ Habib joom ne fi ñoom sëñ Bamba yee ne fi. muy day mel ni génération yi bokkuñu waaye tey ñu daje ci benn table di liggéey loolu dafa am solo ci liggéey boo xam ne da nga koy analyser beneen analise bi mooy ñoom sañ bàkki cun ñi day jàngalekat ñoom dañuy def analise horizontale ak analyse verticale mooy dafay mel ni mbir dina yaatu te du jëm kaw mbir dina jëm kaw te du yaatu waaye day mel ni ñoom seen liggéey bi daf ciy am yaatu ak jëm kaw waxuma ci mbiru baatin damay wax rek ci li nga xam ne nit da koy constaté man cee waxtaan ndax fekk naa Nations Unies ñu fay dem ay salle 4 wala Security Council room bi ñu ne fa léegi sëñ Keita nan nga mun a jàngate li nga xam ne yéen jëla ngeen ci yaatuwaay bi mu le plan horizontal dem ci état yi ba mu mat tey ak nag si le plan euh, vertical ngeen dem ba ñu jox leen la grande salle de l'Assemblée générale des Nations Unies moy salle bo xamné ne salle bi gëna reuy la ci Nations Unies kenn du fa dem kenn musu fa wax diine loolu xamna ya koy bok ak sëñ khadim yéen koy bok waye sëñ sëñ kayta nan ngeen liggéey ba loolu tay ji yàlla dogal ko ci seen génération dogal ko ci seen liggéey ba ci Amérique muy Bamba Day July 28 ñu def ko ci ci salle assemblée générale des Nations Unies sëñ Keita Thiam bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahi rahmaani rahim اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله تعالى tardé bi ñu def ñoo ngi nuyu mboolem ñiñ fi fekk di nuyu it taalibe di nuyu sëñ Pape Dramé di ñu fi fekk nga xam ni ñoo nekk Air Sénégal ak sunu bokk yi nga xam ni ñoo nekkoon démb nekk it tey ci suba Saliou Diop Serigne Khadim Thiam Serigne Khadim Samb ak euh, Serigne Mbacke Thioune euh, jigal laaj bi nga laaj dafa nekk loo xam ni xeyna da fay retracer d'une certaine manière historique euh murit yi ci États-Unis bu jëmee ci salle 4 muy salle bo xamni ñepp xamnañu importance bi mu am ca ñinga xamni ño fay dajé ñu gën leen xam ci ay diplomate gën leen xam ci ay représentants ou ay réewu aduna buñu démé ba sal bobu ñu yëkëti ko jox ko mouride yi loola ndamal serigne Touba la ndamal sirintu Touba loolu da fay am ño xamni ni koy jëmmal té ñoña mooy wa Mika mooy mouride yi nga xamni ño nekk biir New York deug la mouride mom fu mëna né ne ñëpp ben benn identité lañu am benn bëgg-bëgg lañu am benn itte it la am seen itte mooy liggéeyal Serigne Touba seen bëgg-bëgg mooy am ngërëmal sëriñ Touba yooyu yëpp nag ñu ngi koy amee ca la nga xam ni mooy la gën a gaaw te gën a wóor muy ndigalal sëriñ bi ndigal loolu nag dafa àgg ci sëriñ Mourtada Mbacké bind lettre wax ni dafa bëgg murit yëpp ànd doon benn lettre boobu. yaakaar naa bi ñu demee ci daje bi ñu doon am Detroit te Serigne Mamor Mbacke initié ko ngir bëggoon ñëpp ànd doon benn lettre boobu ëndaale woon naa ko multiplier ko joxe ko ca commission ba ma jiite woon muy kër Serigne Touba kon bu fekkente ni dem nañu di ànd par benn di ànd par ñaar jëkke ko ci confédération des organisations mourides aux États-Unis nga xam ni booba état bu ne ñaari représentant nga am New York Serigne Mor Samb ak dem si Yalla Serigne Abdourahmane Diop Yalla na yàlla dolli ay leeram ñoo fa néwon benen état bu mu ci mënti doon nit ñaari représentant ngir lan ngir dëggal loolu nga xamni mom moom la Serigne Mourtala bëggoon dem ba mu ñor ko ba mu bind lettre jox loola nag moo dox di dem mboole yu war a ànd waaye nu ñuy àndee loola lu ñuy definiir la loola it nit ñi mën nañ cee ami xalaat yu bokkul comme nit yi it mën nañ cee am ay négociation waaye ndigal li muy ànd leen kooku moom kenn werantewu ko kenn discuté wu ko kon bu fekkee am na soox-soox wala mu am retard wala mu am lenn ma nga aju ca naka lañuy àndee ak naka lañ koy defee ndax foofa moom nag kenn ku ne euh, may nañ la nga indi ca sa xalaat kenn ku ne it may nañ la nga indi ca stratégie waaye li nga xam ni moo fondamental muy ànd leen ji bu ñu ko jéemee nii it sottiwul ca nañ ko bëggee dañ koy jéemaat neneen waaye li reste constant mooy faw ñu ànd kon loola moo indi jataay bi ndax suñu demee ba FONCAB regroupé lu war a mat quarante daayira ku ne xam na ni liy daayira ci biir New York loolu it Mika gere ko nu ànd di liggéey kenn ku ne jaar ci sa yoon mooy ca stratégie waaye ñu bokk lenn lu wut bokk lenn lu ñuy def muy liggéeyal sëriñ bi ak jéem a dëggal ak jéem a matérialiser ndigalu sëriñ bi

bis ba nag bañ ko ko joxee waa New York ñoo cay jiitu ñoo koy jëmmal ndax géographiquement ñoom ñoo fa ne te it lañ fa nekk rek mooy li murit yi nekk feneen mooy li fondation bi nekk feneen kon ñu xam ni stratégie mën naa wuute waaye bëgg-bëgg bi benn la nu ñu koy defee nag loola moom mooy indi parfois ay retard mooy indi ay ay ay loolu waaye l'objectif reste le même le but visé mooy fexe ba li sëriñ bi bëgg ci ñun muy ànd ñu def ko te liggéeyal sëriñ Touba ndax doomi sëriñ Touba lam la digal te nga dajeek moom jamono moom wér na ni mën nga caa jaar ba am ngërëmal sëriñ Touba na ko mag ña àndoon sëriñ bi amee kon yoon wi moom mi ngi tënku ci benn baat muy ndigal ndigal loola nag ku ca xas dugg ku ca xas tàbbi am volonté di ca dox wóor na la ni danga àgg ca la nga bëgg te la nga bëgg mënu weesu mënu sut mënu la gën ngërëmal Serigne Touba yàlla nañ ko yàlla defal te lii nga xam ni mooy ànd bi mu gën a structuré wu gën a gën a dox gën a baax ndax ay boroomi bopp nga fi boroomi xol yu leer a ngi fi te rien n'est impossible Xaadim Samb wax na ko à l'image des deux Hizbut Tarqiyyah te it ñun jàpp nañu gëm nañu. ni lépp loo xam ne lu Serigne tubaa bëggoon la dana am ci ayub sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te te yàlla na gën a am ngërëmal Serigne Touba jërëjëf jigal eh, jërëjëf eh, yaakaar naa ne kàddu yooyu mënu ci woon a ñàkk eh, dañuy dem directement ci transition bi ñu fàttali mbokk yi yéen a ngi ànd ak université Cheikh Ahmadou Bamba kàddu gi di bàyyeekoo fii ci Touba Ndam Daaru Alimul Xabir di dalal euh, waa Mika di dalal waa fondation Cheikh Bamba di dalal waa Air Sénégal yaakaar naa ne euh, bu ñuy magnifier euh, ndaje bi barab bi ko defee aussi dafa am solo ndax barab bu Serigne Touba Cheikh Bamba Khadim Rasoul fonkoon la moo tax yaakaar naa ne hasard amul kon Air Sénégal xam naa sëñ Mansour lay jox kàddu gi directement bu ko defee moom it li mu fi jot a dégg. ak euh, xëy na euh, ban jàngat la ciy def ak lan la jàpp ne vraiment euh, diaspora bi ak Air Sénégal mën nañoo ànd di ko dox ngir compagnie bi dem ba nekk ci compagnie yi gën a mag ci àddina bi te loolu lu mën a nekk la ndax sénégalais yi bokk nañ ci tukkikat yi gën a mag ci àddina bi sëñ Mansour bismillah auzu billahi bismillahi rahmaani rahim sëñ Cheikh Amar ñi ngi lay sant di la gërëm e, ci dal bi ngeen ñu dalal ñu àndandoo ak sunu ay collègues ak sunu ay nataangoo ñu bokk liggéeyukaay e, mu ànd ci fii ci biir studio bi ak Ibrahima jaase ak ñi ñu àndal ñu nekk ci biti Euh, di remercier bu baax sëñ Cheikh Jigéel ci yombal ak ci dalal bim ñu dalal ci ndigalu sëñ Mamor di ko jox nuyu bu gëna a tedd mu tegal ñu ko ci loxo ki nga xam ni tey moo fi toogal maamam di Cheikh Al Muntaxa na ko yàlla taw ay fanam yokk wéram ndaxte ndamu lislaam la tiitaru lislaam la euh, Sénégal tey bu réew mi taxawee bu réew mi ñeenti facteur moo ko waral bi ci njëkk mooy ñaan ak liggéeyu mag ñi bi ci topp mooy kurusu sëriñ si beneen bi mooy loxo diaspora bi bi ci mujj mooy jomu ndaw ñi Euh, tey jii diaspora bi am nañ taxawaay boo xam ni bu réew mi nekkoon ils seraient les actionnaires majoritaires parce que kër yi ba malgré les difficultés économiques et conjoncturelles c'est parce que kër gu Sénégal am na ku nekk ci bitim réew te loxam bokk na ci li donc ñu leen di remercier di leen dalal ci turu direction générale de Air Sénégal ak conseil d'administration ak personnel bi yëpp ñu leen di sant di leen gërëm di leen wax ni Air Sénégal xëy na dañ ko sos ci mi mais c'est la compagnie de la diaspora parce que biñ ko taxawalee dañu njëkk laaj fan la sénégalais yi nekk ci kaw àdduna ñu ne Italie ñu yóbbu benn vol Milan ñu ne également Espagne ñu yóbbu benn vol Barcelone ñu ne France ñu yóbbu benn vol Charles de Gaulle yóbbu beneen Marseille ak Lyon ba bi ci mujj le 2 septembre ñu ne ndëkk à ñii nga xam ne ñooy sunu mbokk ki sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo nekk Amérique wara ñu leen bàyyi ginnaaw ñu lancé le tronçon Dakar JFK muy New York

tey soo xoolee Emirates benn avion lañ commencé bi ñuy am benn avion Sénégal moo leen ëppoon doole ndaxte ñoom ay sàmm lañ woon ci désert bi lañ nekkoon ginnaaw bi ñu amee pétrole lañ am doole bi ñu donc sëgëm ñooñu ñoo mën a tàmbali am benn avion exi fii ñu egsi rawatina compagnie bi nga xam ne état bi daf ci def dooleem yépp malgré mbas mi ñu def ci ay moyens ba amul benn mois bu ñu teg te fay ñu salaire yi avion yi ñëpp xam nañ ni leasing lañ koy jëndee muy benn système de prêt banque yi ñoo koy garantir ndax lu mu chéré malgré ça ñu continuer parce que mbas mi du la tere fay donc état bi moo ci teg loxom te ba léegi ñi ngi ci mbas mi compagnie yi ñi ngi wàññi seen personnel ñi ngi wàññi seen avion mais ñun ñi ngi yokk suñu personnel ñi ngi yokk suñu avion ñi ngi gën a yaatal suñu réseau loolu ndëkk li ko waral mooy c'est une stratégie orientée diaspora mu mel ni buñ nee Air Sénégal amatul xàjj ak seen ñi nekk ci réew mi diaspora bi ak africain yëpp ñun ñoo ñoom ñoo ko moom ñu am aussi vol buy dem Afrique centrale di def Dakar Cotonou Libreville ak Douala pour desservir l'Afrique centrale li ci ëpp solo mooy li tax may wax sunu maam Cheikh Ahmadou Bamba yàlla nañu ko yàlla fayal parce que fu nekk ci àdduna moom mi ngi fa parce que fu taalibeem nekk rek dafa mel ni moom moo fa nekk mu nekk liggéey boo xam ni bi mu koy sos xëy na waxuma sax ñun mais mag ñu bari ñu fi nekk sax xëy na ganewuñu woon àdduna loolu dafay firnde liggéey bi mu liggéeyal yàlla yàlla fay na ko ko yàlla nañu ko yàlla gën a fayal te yoonu murit bi gën a law ci àdduna parce que lii ndamu lislaam la euh, tey jii ñi ngi wax terrorisme lu bari mais doo dégg fenn fuñ ci boole mouridisme te pourtant dafa nekk yoon ci biir lislaam parce que ki ko dafa am numu ko vie, daf ko sanc ci jàmm sanc ko ci mbolo ko ci mu nek lu am solo euh, ñuy lu lolu bu baax di wax Air Sénégal c'est le pavillon national suñu drapeau lu ñun ñep bu jëmee kaw rek ñun ñep ñoo jëm kaw di invité bu ngeen di tukéti ngeen ko waxtane ak ci mbokk ñun ñep ñu jël Air Sénégal parce que xeet ci àdduna yëpp non lañuy ku ci nekk japonais bi buy jënd bu doon jënd ñetti ndox yi bu gisee bu ñu bind Casamance gis boo xam ne dañ ci bind Japon bi bi bi ñu bind Japon lay jënd mu mel ni tamit dañuy egg ci jamono joo xam ni sëriñ bi fonk gi mu fonkoon der bu ñu lépp lu mu liggéey mu jël ko fi bàyyi ko parce que bu doon jëmmam rek du fi bàyyi xasida yi su ko demee bàyyi ko fi moom jariñu na ba pare dafa bëgg njaboot gi jariñ donc générosité boobu nekkoon ci ñoom ñun aussi dañuy fexe ba mu nekk ñun ñu jëlaat sunu alal fonkaat ko sunu dërëm li ñuy tuur sunu ñaq ci réew tubaab micro bi rek doy na. maa sol micro bi la ñu jëlaat sunu ñu jëlaat sunu alal ak sunu delloo sunu réew parce que réew yooyu tabax nañ leen ba pare mu mel ni kon Afrique rek moo fi moo fi moo fi des sunu njiiti ñu am bu ñu amoon ci jamono ji ñeenti njiit wala ñaari njiit yu mel ni Cheikh Ahmadou Bamba kon Afrique tabax nañ ko ba pare mu nekk loo xam ni euh, ñu ngi leen ci woo hmm. yéen ak seeni njaboot ci nekk Amérique.

wàññil état bi responsabilité yoral ko benn pàcc ci njabootam di ñi ngeen di fay jàng di fay ay facture di fay lépp ñun ñëpp xam nañ ko parce que ñëw nañ ci dëkk yooyu te am nañ fa ay mbokk tamit yu fa nekk am nañ fa ay mag am nañ fa ay ndijaay am nañ fa ay papa xam liggéey bu rafet bi ngeen liggéey normalement waru woon sax état bi moo ko waroon jël normalement donc suñ demee nag ba état bi am ñu am une compagnie nationale buy ñëw ci dëkk boobu ngeen nekk ndëkk léegi ndëkk c'est le moment pour ñu def une coopération franche ku fa génnati àdduna ñu faciliter ko comme ni ngeen ko wax lu mu gën a gaawee mu ñëw ci dëkk bi ñu denc ko ñaanal ko jébbal ko boromam loolu bu ñu demee dinañ ko jébbal direction général bi dinañ ko jébbal service cargo parce que cargo moom mooy toppatoo loolu waaw parce que nit ki bi muy taxaw di dund di am bakkanam bi muy tukki avion la jël dem donc dañ koy ameel njukkal te yàlla nag mënul jël doomu aadama fonk ko ba pare ñun ñuy foye doomu aadama mu nekk lu am solo dinañ ci liggéey liggéey bu am solo ngeen dalal ci seen xel bu ñu demee direction li ñu leen di njëkk a wax mooy ñu organiser benn rencontre mooy ñi ñu fa gis représentant wu Gabon représentant wu France hmm. représentant wu États-Unis yëpp comme hmm. da ngeen ñëwaale pour fekkee gàmmu gi hmm. su gàmmu gi jeexee rek ñu organiser benn rencontre avec la direction générale d'Air Sénégal liñ fi wax yëpp ñu tënk ko parce que comme ni mu koy waxee sëñ Dia nee naa ko dañuy bàyyi di dajale nit ñi suñu nous rek ñu nous mhm. cest dire buñu démé liñ fa nous nañ ko mhm. ko na guddal fanu ñëpp. Mhm. mais ki fa ñëk nous aduna buñ ko nous ay vol bi ñëk ñëw Dakar nañ ko ci def une coopération sincère. parce que ñun rek ñoo mën a suñu biir. Afrique ñun rek tabax. Sénégal c'est la compagnie de la diaspora mi ngi pour africains c'est l'une des rares compagnies bo xamni dañuy gis pilote yi nekk nit ku ñuul hôtesse yi nekk nit ku ñuul hmm. liñ fay def aussi mu nek lu xalal lu sel lo xamni duñ fa jaay lenn lu ñuy tere ñu bëgg na képp kuy ñëwati rek te nekk ci diaspora bi nga ñëw di jël Air Sénégal temps yi wax ji bëri na trop ci réseaux sociaux yi mais da ngeen di japp ni li ma doon wax sank rek Air Sénégal est un bébé précoce dañu commencé rek bëri ay avion bëgg dem fu nekk commandant de bord yi nekkoon Dubaï man mi ambassade des États-Unis laa nekkoon mais dama démissionné pour ñëw Air Sénégal parce que dama ne ñoom tabax nañ seen dëkk ñun ñoo ci des commandant de bord yi ñuy Dubaï lañ jóge am nañ jóge sax ba Inde démissionné ñëw am na ñu doon liggéey aéroport de Paris bàyyi nañ liggéey ay africain lañ pilote africain am na nationalité yëpp même suñu directeur marketing c'est un Camerounais pour que rek doomu Afrique ñëpp ñu gis leen ci biir Air Sénégal am na ay léeg-léeg mu am ay retard

te bu boobaa dañuy annuler vol bi que yi nag duñ ko comprendre dañ naan mais ñu wax ñu annuler chaque jour dañu annuler alors que commandant de bord bi xëy na très boobu mu gis xamul ndax lu ñu gas la parce que point bu tuuti ak pressurisation bi day day dilaté wu day indi jafe-jafe donc facteur retard yi dafa bari ci code retard yi y' a plus de 200 200 prétextes yu war a mën a tax ñu annuler vol moom la ñuy wax les DL codes les codes de retard donc moo tax nag bu ngeen di tukkeeti aussi même bu dul Air Sénégal. vol bu ngeen dégg ñu annulé nañ ko sant leen yàlla te xam ne seen sécurité moo tax. ñu annulé ko. loolu nag tey boo ko waxee nit ñi duñ ko comprendre. Air Sénégal aussi bi mu jëwee rek Delta bi ñuy dem léegi ak léegi septembre ak léegi matul deux mois mais Delta seen ay passagers dafa wàññeeku bu baax parce que ñi dem Amérique yëpp ñi ngi jógee Freetown ñi jógee Banjul ñi ngi jógee ñu ngi jógee Mali Bamako ñi ngi jógee Abidjan Dakar la ñuy ñëw pour jóge fi dem Amérique parce que américains yi Sénégal lañ wóolu parce que nenañ nañ bon sénégalais yi nañ xam nañ ni buñu ñu fi ñi fi jaar ñëpp dina fekk ñu sécuriser leen ñu jaar par le dispositif de contrôle pour mën dem Amérique donc mu nekk loo xam ne également dafa nekk dafa dafa dafa dafa nekk lu am lu ama am solo donc loolu rek moo waral jafe-jafe yi ngeen di dégg ak retard yi ñu bëri ndëg ñi ngi wax ci réseaux sociaux yi mais dañu comprendre moo motax hmm. moo tax ñu bëggoon profiter ci li pour leeral leen. soo gisee Air France tamit dañuy dem Charles de Gaulle léeg-léeg. Hmm. ñu gis au lieu ñu ñu ci bridge yi mooy point yi ñuy embarqué. Hmm. dañuy yóbbu au large dañuy yóbbu fi gën a sori pour ñu embarqué. micro pour vol la taal micro bi. parce que dañuy xeex ndànk-ndànk. parce que biñ fi nekkagul woon Air France ñaari vol la doon def par jour te yëpp ay fees. puisque Air Sénégal ñoom seen doole day wàññeeku ñoom nag duñ la xeex xeex bu fees dañ lay xeex ndànk. dañ lay xeex ndànk te loolu nag mënuñu ko wax ci ci ci ci ci loud yi nekk ci aéroport yi. Mhm. parce que c'est pas professionnel. mais puisque ñun dañuy waxaan ci biiri mbokk. tey loolu dañ leen koy leeralal pour ngeen xam ko. retard yëpp du ci ñun parce que avion bu war a jógee Paris su tardé deux heures de temps avion yi war a jóge fii ñi war a jóge Paris dem Bamako jaar fii dañuy obligé xaar leen moo tax avion yi retardé yi di bëri mhm. donc ñoom aussi dafa am benn travail de sabotage bu ñuy def ci suuf mu mhm. la ñuy wax intelligence économique ñun moom ay nit yi jàmm lañ yaakaar nañ ni lépp ci commercial ak wut client la yem mhm. mais ñoom dafa am foo xam ni comme ni sëriñ bi niñ ko doon tegee ay gàllankoor loolu ba léegi dafa am c'est que niñ koy defee moo wuti parce que monde bi dafa avancé yàlla droit international yu bëri ñemeetuñ ko def mais ci suuf dañ lay tegal ay ndëgg sërëx yoo xam ni ak ay système yoo xam ni boo tardé ñu lay teg ay fine di la teg ay fine ba mu jigi yoo sa bopp sa doole day jeex compagnie bi ñu ne africain yi mënuñu yor dara fekk à la base ñoom ñoo ko saboté loolu aussi mu nekk lu mat a bàyyi xel ñu leen di gërëm di leen sant ci opportunité bi ngeen ñu may pour ñu leeral Serigne Mamor Mbacke aussi ñu koy ñaan mu yàgg fi lool lool lool lool te wér mm-hmm. parce que biñ nekkee xale ba léegi moom ñu ngi koy topp di gis li muy dox moom Euh, boo xoolee sax moom liggéeyu yonent lay liggéey mm-hmm. parce que day dem fu nekk ci àdduna mm-hmm. di lawal diine ji mm-hmm. di fexe ba njaboot gi nekk ci njub loolu aussi nekk loo xam ni mënul ñu lu dul ñaan yàlla mu sut ay waajuram fan ba mission bi mu bëgg ak li mu bëgg a liggéeyal maama mu yeggali ko ci jàmm ak salaam ñu ngi leen di remercier jërëjëf euh, sëñ Mansour sëñ Ndiassé dafa am ñaari baat ci bëgg a jokk bu fekkee na mën a Ndiassé bisimilah waaw jërëjëf euh, sëriñ Cheikh Amar nous sommes lay la euh, professeur saint Digal qui euh, fait euh, defal depuis que ñu commencé ligue ak ont euh, bu baax ñu nous plateau bi di de ligue bi nga ne Nous koy def depuis le début ci tout bi le di parce que nous avons organisé organiser nañ lépp loo xam ne war na seen biir def nañ ko ba lépp yemb kooku bés bu ñu demee ba Air Sénégal war a tabbi seen biir ngir jàppalante ak ñoom lu yomb lay nekk moo tax euh, comme ni ko Mansour waxee am nañu mbégte lool ndax waxtaanu tey bi daanaka su fekkee ne am na yi am na lu fi bees Air Sénégal la te loolu lu muy wane mooy que yéen a ngi yokk ndax mënoon a yem seen biir mais dem ngeen ba tey ñëpp soxla nañ leen euh, li waral ñun suñu liggéey ak euh, yéen. Euh, moy que Air Sénégal deug la ni seigne Mansour waxé dañu nek euh, une organisation bo xamné dafa c'est commercial buñuy liggéey lépp lu ñuy def dañ koy basé ci stratégie lo xamné da fay jëmale compagnie bi kanam biñuy xol Sénégal xol pôle yi fi am ñu xamné seigne sëñ Mame Mor tey nañ ko considérer quelque part comme le ministre des affaires étrangères bu la communauté mouride wa comme lool amna ñu xamné euh, Air Sénégal tay ñun li ñu bëgg pour ñu am ko sur le plan stratégique pour mu dox il faut que ku mel ni sëñ Mame Mor nga liggéey ak moom ñu seet si ko waxtaan ak moom mu dalal ñu directeur général bi déplacé wu na njëkk nañ fi ñëw en mission avancée gis ko waxtaan ak moom wax ko suñu bëgg-bëgg ci moom ak ci taalibe yi loolu bu wee bi mu weesoo ci màggal gi directeur général ak ay directeur généraux yi nekk ci suufam jóg ñoom ñëpp déplacé wu ñëw ba ci moom seet si ko

leneen ngeen di wax ci leneen ngeen di concentré mais seen voyage moom leer na leen ne fare na boor ndax am ngeen compagnie bu leen indi am ngeen ay tarifs yoo xam ne c'est des tarifs spéciaux pour yéen ba lépp loo xamante ci wàllu voyage la rek muy jugee fii dem fële muy jugee fële ñëw fii du nekkati jafe-jafe ci yéen moo tax vraiment ñi ngi leen di euh, ubbil suñuy loxo comme ni ko Mansour waxee daanaka wax na lépp amul dara luñ ci dolli xanaa rek euh, ñëwaat tuuti rek ci euh, dimbali bi ñu war a dimbali Air Sénégal ndax dafay compagnie boo xam ne xale la compagnie aérienne africaine dans na juddu def dix ans du xelaat def long courrier day yem biir Afrique di dem ko ñëw ci ay parce que stratégie la mais ñun Air Sénégal ñun ñoo choisir stratégie de hub aérien mooy fexe ba Dakar nekk ben point de ralliement boo xam Fait le vol du Djougé, ci sous région bi ci Afrique ñëw Dakar bu ñëwee ba Dakar Djougé Dakar jàll ci ay réew yu sore sori loolu ñun ñoo def actuellement en Afrique ak peut Ram ñu ngi koy def yàlla mi ñu ciy dimbale %e mais :fra dafa fekk ni stratégie la boo xam ne dafa xaw a métti parce que bu fekkee da nga opté pour ëpp vol war a jugee par exemple :fra Freetown comme ni mu ko waxee war a dem war a war am ay clients yoo xam ne bu ñu ñëwee Dakar dañu war a jàll Etat-unis ñooñu yegg si volu Etat-unis baa ngi xaar am yeneen yu war a jugee Abidjan bu Abidjan bi bu amee tuuti retard :fra mun na mun na mun na répercuté wu ci bii xaar te war a dem fële te comme ñun dañoo bëgg dajale ñëpp boole leen yóbbu leen états unis loolu moo tax des fois aussi :fra yenn retards yi di am [r] euh, ma jàpp ne lu ñu war a mën a comprendre :fra la xaar quelques minutes def li war yëpp sur le plan sécuritaire sur le plan de la sûreté ba nga xamante ne ni vol :fra yëpp dina yemb balaa ñu quitter :fra euh, loolu moo tax stratégie :fra boobu ñun ñu nekk ci ñu ngi ciy góorgóorlu nag bu baax a baax a baax ndax comme ni ma ko waxee sànq euh, compagnie aérienne :fra daan na judd Afrique hmm. yàgg fi def 10 ans du xalaat dem dem dem def long courrier hmm. ñun dañuy judd rek am ambition :fra wax naa ma ne sax nous sommes victimes de notre ambition. Mm-hmm. parce que tey loolu. Mm-hmm. kenn mënu ko reprocher kenn ndax. Mm-hmm. nekkat man dama bëgg xool ñi mag ñi fi ñu xool. bi ñuy dem États-Unis bi ñu yeggee Washington bi avion bi atterriré passagers yi seen bopp. ñoom ñoo tàccu pendant une minute. ñëpp tàccu jóg yooxu kontaan. spontanément lu kenn yëgul. ma ma ne benn passager mais mais lan moo waral lii. dañoo am mbégte la ma wax. parce que. dañoo amoon coono bu baree baree bari suñ daan ñëw suñ daan ñëw fii dañ daan dem ci yeneen compagnie ñu ñu ñu yóbbu seeni réew di ñu fa teg pendant des heures ñu toog di xaar mais tey Air Sénégal su jógee jël ñu ñun démb ci guddi ñu ngi reeree Dakar tey ñu ñëw war a ndekkee si fii mm. loolu sant yàlla bu baax a baax la yokkute bu mag a mag la mm. muy benn beneen bi mooy nga taxaw ci aéroport bi mm-hmm. ci baie vitrée yi ngay seen compagnie yu mag yi ay Delta ay American mm. Airlines ni ñu leen di séenee nga seen Air Sénégal mm-hmm. loolu fierté bi ngay am mm-hmm. kenn mënu ko natt waaw bu fekkee da nga wër Afrique aussi ngay voyager nga dem dans les autres aéroports eh, eh. nga gis avion yi hmm. euh, euh, aéroports yi daanaka amul trafic hmm. nga ñëw dakaar nga xam ne la nga bàyyi Europe bàyyi ko Maghreb boo ñëwee Sénégal loolu nga fiy hmm. fekk muy ci taar mu ci trafic mu ci dem ak ñëw nga xam ne kat réew mi mi ngi avancé macha allah waaw yombul nag parce que mi ngi doog a jóg ñetti at kese la ñu am ñu muñal leen ku am ñetti at eh. am am am am huit appareils am na am na yu war a ñëw ci fin d'année bi nii ak yeneen ak yeneen waaw suñ muñee tuuti ànd góorgóorlu ah. boole suñu doolee boole suñu xol gëm naa ne suñu borom dinañu dimbale ba fii Éthiopienne yegg Air Sénégal yegg fa ngi leen koy ñaan di leen gërëm bu baax di leen sant jërëjëf jërëjëf euh, sëñ Ndiassé ñëw sant ko bu baax a baax a baax c'est vrai que faaw ñu muñal leen léegi nag euh, dañoo bëgg a euh, seet nu ñu tënkee jataay bi ndax yéen yéen ay kilifa yi te nit ñaa ngi leen di xaar fële am na mbooloo moo xam ne aussi ñu ngi fii toog dañoo bëgg a kenn ci soxna yi moom it mu yëkkati ay kàddaam soxna Khady Diouf Euh, euh, Pape Sayar Mbaye Pape Sayar waa Pape ñu ngi lay ziar waa waa Pape kon ñu bàyyi la kàddu gi. <laughs> Euh, jërëjëf sëriñ Cheikh rafetlu lool taxawaay bi ak jotaay bi nga xam ne jamono ji yaa ngi koy amal mu doon jotaay bu am solo bu mbokk yi ñu ngi koy bàyyi xel lool. muy dalal bi nga xam ne dalal nga ko kilifa yi jiite kuréel gii di FONCAB ak MECA waaye tam waa Air Sénégal. Euh, doon jotaay boo xam ne nag euh, bu munta ñàkk la ndax itam liggéey bu am solo bi nga xam ne euh, mbokk yi nga xam ne yàlla dafa dogal seen ay tool féete ca biti ñu fay daan seen doole waaye itam di suturu di ko indiwaat ci dëkk bi am fi ay njaboot mu doon jotaay boo xam ne kon bu am solo la noonu nga ko waxee nag mbokk yooyu nga xam ne ñu ngi ci biir di ci amal jotaay waxtaan am na yeneen kilifa yoo xam ne nag ñu ngi fii nga xam ne kon moom moo di ci geneen wàll gi di teewlu jotaay bi Euh, bokk na ci ñoom nag euh, ñoo xam ne daa daanaka mën nañoo wax ne euh, lu weesu sax kuréel gi nga xam moom nga dalal tey muy Foncab wala MECA wala muy kuréel gu mën di doon taxawaay ba am solo bu soxna yi ñu ngi koy taxaw yaakaar naa ne seen taxawaay doonu loo xam ne lu nuy laajte ci la ci réew mi ndax liggéey boo xam ne sumb nga ko rek jigéen ñi am na taxawaay boo am solo boo xam ne danu ko cee wane rawatina ci dëkk bu sell bii di tuubaa kon jigéen am taxawaay boo xam ne yàgg na koo fésal yàgg na ko mandargaal loole nag tax euh, ci geneen wàll gi nga xam ne kon fi la ñu féetee soxna yi nga xam ne ñoo nekk ci kuréel gi euh, di euh, Foncab wala Mecca bu mu ci manti doon doon ñoo xam ne seen liggéey ràññeeku na lool soxna Mati Diouf kenn la ci kilifa yi nga xam ne ñoo koy taxaw soxna Mati ginnaaw bu ñu la nuyoo ziar la nga nek en direct ci radio UCAB FM may fàttali ne euh, UCAB ñi nek Touba ak ñu wër mën nañ ko dégloo ci 103.5 waye tam diaspora bi fu mëna nek ci aduna bi euh, internet bi mën nañu ko déglu ñetti w point fm point com télévision bi itam mi ngi ci phase test xanaa ngeen ñaanti rek waaye itam def ci la ngeen ci mën ngir mu mën a gën a sotti eh, jamono ji mën ngeen ko seetaan ci internet bi ñett double point a itv point net eh, kon nag eh, dama lay bàyyi rek kàddu gi ngeen nuyoog mbokk yi te dellusiwaatal ak ñun taxawaay bi nga xam ne soxna yi ñu ngi koy taxaw ci liggéey bi nga xam ne yéen a ngi koy liggéeyal sëriñ bi ci bitim réew waaye itam di ko liggéeyal réew mi mu doon liggéey bu solo kon ñu bàyyi la kàddu gi soxna Mati Diouf أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين جرجف الشيخ الخديم جرجف الشيخ الخديم بوك جولي بوك طالبي سما كليفه يي في ده ماغي لين دي جيغلو كادو دي دي لين نوي بو باخ دي لين زياره دي لين جوخ سين واتي واي دي واخ سي كو خامني نك damay sawar ci moom Eh, ndax man dama naan ñun ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew raw nañu ndax li tax ñu raw mooy ki ñu yàlla booleel muy góor yàlla Cheikh Mourtala ba muy ñëw Amérique booba amerig metti na booba rey gi bari na booba metti na lool ci africain buy génn rekk di jaay mu ñëwee mu gis ne Modou yi sonn nañu Fatou Fatou yi sonn nañu ñu diis ko suñu soxla ñun ñëpp ne ko dañoo bëgg kër Serigne Touba fii ci New York ndax mooy kër gi njëkk ci kër yi mu daldi wut kër googee génne 51 millions juróom fukki millions ak benn teg ci taabal ji ñu ne ko kër gi de dañ fi daan foo ak a def yëfi caaxaan ñu bëgg koo jëndal Serigne Touba mu taxaw ca loolu ba loola am muy kër gi ci New York tey sëñ Mbàkke Cuun mii may xam na ci dara ak ñeneen ñi fi ne ñépp xam nañ ne New York sëriñ bee ko dëbb ba mu mag rumbux rawatina mu defal ñu lu kenn amul te kenn ditu ko am muy Nations Unies yi nga xam ne sëriñ Touba rek a fam kàddu ku dul sëriñ Touba ci africain amoo fa kàddu dama ne ñun dañoo raw googu may wax toujours di ko wax ci télé yépp mooy sëriñ Touba ñu raw sëriñ bi mënoon naa dem feneen te bañ a ñëw amerig te bu boobaa ñu sànku mbaa njaboot sànku waaye tey dëkk boo dem ba ci Cincinnati foo dem rek ci ci ci ci ci ci ci sëriñ Touba nga fa goo xam ni kërug jaamu yàlla la kërug xasaayit la kërug jàng alxuraan la te kenn sakaluñ ko kenn wutaluñ ko dul sëñ murtala hmm. gor yalla yal na fayal ñuko bakki bo ma masaana wax ke seigne touba mu ne keur yalla ku jaaxle fa ngay fanaan ku ñew amo fo dekk ñu fat la fa di jox ngay lek di jox ngay nan di jox xaliss nga fecc sa xol ba keroog ngay am liggey mo meuna liggeyal ku bax mo meuna liggeyal julit mo meuna liggeyal ku tedd dama daan waxtaan ci daayira bi eh, sëriñ bi taalibe bu ñu defee ne moo tax ñu ñëw fi sax man na noo yàccaaral waaye man dafa am gëm-gëm bu ma gëm ne moo taxoon sëñ bi ñëw fa mooy fekk yéefar yi mu tuubal leen def leen i jullit jël africains yi sénégalais yi jox leen ci ay soxna ñu jur ci ak njaboot ñooñu dooni jullit man gëm naa ne loola mission boobu la sëriñ bi gënoon a sawar ci ñëw Amérique di ko dox. macha allah te loolu am na fa. Mm-hmm. Euh, am na ñaari xale yoo xam ni. Mm-hmm. Euh, dañ leen a jàngal alxuraan foofa mhm. ñuy ay américain bind kaamilu alxuraan mhm. teg naa ci sama bët kon sa sëñ bee ñu may loolu macha sëñ bi moo ñu may ñépp doon benn mhm. kërug diine gu fa woote sëñ tubaa ci man waa kër sëñ tubaa ci man ak gu man di doon nag bu laayeen ngee bu tijaan ba bu beneen ba waa kër sëriñ tubaa yi dajale million jox leen kon ñun waa kër sëriñ tubaa sëriñ Mourtala desee lu ñu dara waaye mu boole ñoo doomam ji gën ñépp nag sëñ maam moor dama ko naan war nañ laa jàpp ngir ñett sa fulla ak sa fayda ak sa ngor ak sa diine bu sa baay wëlbati ko jàkkaarloo yow doo defaraat sab toogaay muy sëñ maam moor Mbàkke borom fulla ji macha allah nangoo liggéey am jom xam boppam eh. xam fi muy teg tànkam ku bokk ci caaxaan àndul ak yow sëñ Maam Mor ku fonkul sa kàddu àndul ak yow ku fonkul sa jëf àndul ak yow mm-hmm. te di muy jëf moo ëpp li muy wax te kenn du ko yëg jërëjëf dana faj soxla yu bari te kenn du ko yëg macha allah xam naa ci moom lu bari mm, jërëjëf mën wax ci moom lu bari ba suba te du jeex waxtu ñu <laughs> waaye macha allah macha allah sama sama sama sama sang boobu mbàkke eh. jigal mi xam ne ci dara bu ma aaloo bu toogee eh. bu may wax du ma ca xool kenn bu may wax ci moom incha allah lu ma wax ci moom rek dëgg la yal na ko yàlla bàyyeeg ñun. jërëjëf na ko yàlla sàmm. amiin jërëjëf yal na yàlla mottaliw yoonam. amiin amiin jigal ñoo ngi sant. jërëjëf ñoo ngi bëgg dama lele woon daaw. Mhm. man fu sëñ bi ne ma fekk ko fa. ndax man saa bu ma bëgg am ko. te moo ma ko wutal. macha allah moo ma moo def ci man xorom soo xam ne si kuy mbàkke mbàkke bëgg nga ma. jërëjëf sëriñ bee ma taal ba ma tàkk. jërëjëf jërëjëf jigal. jërëjëf soxna Xadi. jërëjëf El Hadj yaakaar ya, Karena kàddu yi soxna Mati Diouf wax eh, hmm. kardi am solo hmm. te nak nag dafay màndargaal rek eh, saa su ne ni ma ko waxee léegi ci introduction bi taxawaay bu soxna ñu koy taxaw hmm. lu nu woote nag lañ ci mel kon mu doon lu am solo non mu ko wax itam eh, ci Serigne Mamor loolu itam lu nu mën a seede la ndax yaakaar naa barab bi ñu taxaw di wax seede la ci ndax moom moo fi taxawal di ci yu ñu na ne tukki bi ak waxtaan ak mbokki taalibe ci biti rek mooy yëngoom njàng mi boo dikkee ma nga ca di université Cheikh Ahmad Bamba bi nekk fii ci ndaam doon benn ci banqaas yi am mm. ndakaaru am ndar am uh, bambeeg ya barab yu bëree bëri mm. ba ci communication bi di rajo bi nga xam ne mm-hmm. uh, taxawal na ko fii muy UCAP doon mm. rajo buy taxaw ci dëkk bi ak lépp lu mm-hmm. warmaal dëkk bi jàppandal nekkin wi doon na lu am solo kon xam naa rek dana lay bàyyiwaat kàddu gi ngëwéeg mbokk yooyu ci biir jërëjëf noonu nga ko waxee am na solo te nag seen tuuti ci profit sëñ Tuubaa la koy defal te nee na sëñ Tuubaa ko defal yàlla nga koy defal bañ nañ ko ba ñun euh, numéro bi ñu yor sax bu simple la boo xam ne ku ci tàbbi da ngay <laughs> yegg si directement du serveur boo xam ne day téy nit ñu lu yàgg pour mën a juri koppar loolu it lu mat a <laughs> bàyyi xel la kon ñu sant leen bu baax xam naa dañuy bàyyi sëñ Xadim tëj bu fekkee ne kilifa yi amul euh, lenn lu ñu fàtte te bëggoon ñu ko ci jataay bi ndax xam naa ne ñu ngi leen di xaar ca barab bële te toogaay bi mu ngi bëgg a yàgg kon euh, sëñ Xadim vraiment dañuy bàyyi nga tëj jataay bi ñu leen di xamal ne aussi Euh, dana danañ yaatal jataay bi ci yeneen aspect ci yeneen jamono ndax fi ñu toll nii rajo bi ñoo nekk Amérique ak ñan fu nekk nekk ci àddina bi dina ko mën a déglu déjà tele bi mu ngi ci yoon ñu ngi koy testé ci réseaux sociaux yi kon jàpp naa ne euh, jataay bu njëkk la waaye dinañ amaat yeneen jataay yoo xam ne lépp lu ngeen xewle ak fu ngeen mën a nekk jumtukaay yoo xarale yi ñu ngi ci mën nañ jëfandikoo médium bi ngir jàllale message bi nga xam ne moo xam Mika wala fondation Cheikh Ahmadou Bamba kon yàlla na yàlla yokk xewal yi sëñ Xaadim sëñ Xaadim bala ngay. bala ngay ñaan. mbaa mooy dafa mel ni ñoom sëñ Habib Diom ñii dañoo nekkoon ay mag dem fa sëñ laa fekk leen fa. ñuy dajaloo ba tey ñu ngeen ndekk mbooloo ñëw di siyaat si jël ay avion bi ngeen dajee tey fii ñaar feeñ na ci jataay bi mooy fi ngeen di waxee nii sëñ Tuubaa ko moom. rajo bi ngeen di waxee moom sëñ Tuubaa ko moom. ndax lu sëñ maam moon moom sëñ laa ko moom te kooku lu mu moom góor yàlla Eh, sëñ Tuubaa ko moom te sëñ Tuubaa lu mu moom lislaam ko moom yàlla tam dafa leen tawfeex tey dafa mel ni ki leen di war a yóbbu di leen indi tam ñu ngi toog tey jàkkaarloo yéen ngeen war a wax ak ñoom la ngeen bëgg ñoom ñu war a dégg la ngeen bëgg ñu ñaan ñoom itam yàlla may leen kattan ak xel ak tal gu tax ñu def la ngeen bëgg yàlla na ko yàlla defal ci darajey sëñ Tuubaa bisimilah sëñ Xaadim. jërëjëf sëñ Cheikh Amar baax a baax sant yàlla bu baax ci jotaay bi ndax niñ ko fooge woon dem na ba kawe njort di wax rek ni lii moom bunt la ba ubbiku boo xam te ni bu am solo la ci e, FONCAB ak ICAB ak MICA seen collaboration boo xam war naa mën a juddu tey ci lépp luy xew Amérique e, ICAB di ko e, ICAB FM di ko mën a couvrir rawatina émission ya fay na am ci rajo morit ak ci FONCAB TV tamit di ci collaborer ak ñoom ndax lépp liggéey Sëñ Tuubaa la te suñ Mamor loolu rek moo ko tax a jóg muy àndandoo boo seetloo vocabulaire am bi ëpp ci ay discours am mooy maanaam chatmu tafarruq ak alwaxda mooy maanaam ŋàññi ak wuute ak taqalikoo te di encouragé fu mu toll ak bennoo ak ànd kon yaakaar naa buñ gën a collaboré dana nekk liggéey boo xam gën a gën a am solo suñ jigéen dafa junj léegi lu am solo wax ni salle bi ñu leen jox ngeen fay defee seen discours yi euh, loolu am na sababu baatin am bu saayir sababu batin bi mooy suñ Tuubaa am mbindam day kawee rek du suufe mukk ndax moom moo waxoon ni mankat nasaraan yi dinaa jàkkaarloo ñoom di wax ak ñoom comme ni mu waxee woon suñ mbàkkee bu su ni ko dañu ànd dem màkka bi fi sëñ bi bàyyi suñ mbàkkee am ci jaaxle lool daal ni man de am naa jaaxle ndax xam naa ne Sëñ Tuubaa li ma wax du dañ mukk te mi ngi nii tey jii bàyyi na fi Cheikh Amadou Fadal ba mu ba mu àndee maam Cheikh Anta woo suñ mbàkkee ñu ànd ak ñu àndal dem aji màkka la fa xew lépp gis ngeen ko waaye tamit ne Sëñ Tuubaa waxee woon sama mbind day kawe tey it nasaraan yi dinaa waxante ak ñoom di wax ak ñoom directement tey yaakaar naa bu ñu demee ba suñu maam Mor di jël discours di ko wax ci kaw trône bu Nations Unies yaakaar naa loola mooy sababu baatin bi kon sababu saayir yi si nag mooy yarug murid yi rek yaru gi ñu yaru ak la ñu want américains bañ ba wóolu leen ci lépp loolu képp mooy sababu bi kon nag suñu Cheikh ñu ngi lay woowaat bu baax di la tàllal loxo nga xam ni euh, FONCAB euh, ak MICA ak ICAB FM ak ICAB University dañoo war a nekk benn ñoom ñëpp àndandoo waat di xàccandoo di doorandoo liggéey bi gën a avancé bu baax a baax di santaat suñu Saliou Diop ak suñu mbàkki tun waaye suñu Saliou dama koy sant spécial ndax bu ma ñëwee Amérique ci moom laa moom laa wàcc mën naa ko wax ndax rali la rali laa nekkoon ci ñoom kon ñu ngi koy santaat bu baax di sant suñu président tamit Pape Dramé di ko ñaanal suñu borom gën koo dëgëral di wootewaat tamit ci kër suñ Touba gi nga xam te ni moo nekk New York muy kër goo xam te ni moom lañ njëkk taxaw si bi jom na ko léegi suñu murtalaa ji mooy dindi xaalis boo xam def ci 55 000 dollars loola kon du lu ndaw kon ñi ngi wootewaat mbooleem ñi nga xam te nii ay way defee defalkat yàlla lañ ñu ngi leen di woo ci fundraising ñi ñuy def ngir ñu mën a jàpp ci liggéey bi suñ maam war na moo ci jëkk a jàpp ndax moo gën moo njëkk a dindi 10 000 dollars am joxe jël kartam garanti daani saa yu ngeen manqué xaalis te amu leen sama carte ngi nii kon loolu liggéey la boo xam te nii itteel na sëñ bi lool comme ni mu itteel woon Cheikh Mahamadou Mourtada ndax kër suñ Touba ci New York mooy baasu kër yëpp mooy ndeyu kër yëpp bu jegee lépp jag kon ñi ngi ñaan di woo mbokk yëpp ñu def ci ay ñaan te taxaw ci ndax liggéey bi suñu Mamoor gàgganti na lépp da cee tegoon lépp ànd na ak jox na ci ay ndigal suñu Pape Dramé ñu defar la ci tegoon lépp ba fi ne nii tàmbali rek moo ci des am na nañ architecte boo xam te ne ab taalibe la di taalibe suñu Mamoor di ku baax di jeeju am nañ tamit contractuel boo xam ab julit la lim ñu laaj ci xaalis nag mënta murid bi kon ñu ci woo taalibe yëpp ñu gën cee góorgóor li ci woo tamit Air Sénégal tamit ñoom tamit ñu xool nuñ ci jàppee jërëjëf jërëjëf collaboration avec ci Bamba filmé qui message nga xamné mom la leen doon loolu euh, Sénégal day doon euh, point focal bi loolu day UCAP FONCAP la Fondation Cheikh Bamba ak Sénégal ñu ànd liggéeyal Serigne kon sëñ Khadim ñu ñaan yëkkati jataay bi nga xam ne ñoo ñun euh, sant bu baax euh, Serigne Pape Dramé euh, sant bu baax it Serigne Saliou sant bu baaxit sëriñ Serigne jom sant sëriñ Khadim Thiam ak sëriñ Khadim Samb santi it waa Air Sénégal dig daje ci yeneen jataay fii ci rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba jërë ngeen jëf وجاد وجه لمن تكريمه بانا في سار مولد من في البار ربا فنكب تي في تل خادم رسول بسم الله الرحمن الرحيم هدية الرحمن هدية الرحمن hadiyatu ñu indi loolu ñuy wax social di dimbalante ci sunu biir waaye nag teg ca ni bari nañu fa daan jóge fekk di wuy sunu borom jafe-jafe bari trop ñu wëlbatiku mbooloo mi xalaat ba génne li ñuy tuddee hadiyatu rahma hadiyatu rahma jooju ku ca bokk bis boo bis bu yàlla dogalee la muy dogal des na ko toppatoo des na ko indi ci sutura ci mu gaaw ci delloo ko ay bokkam ñaanal ko fa ñu ñaanal ko fii loola di nooflaay boo xam ni Serigne Touba rek a tax nu man ko nu di ko ci sant bu baax di la ko seeree. nanuy nanuy jéem a xam rek sëriñ bi. nanuy jéem a xam rek sëriñ bi. di ko jéem a nag dund. di ko jéem a nag dund. luñ ko gën a xam. luñ ko gën a xam. gën ko mën a dund. gën koo mën a dund. te luñ ko gën a mën a dund. te luñ ko gën a mën a dund. gën a jege suñu borom. gën a jege suñu borom. gën a gën a gën a gën a gën a gën a gën a gën a mën a liggéeyal yonent bi. gën a mën a liggéeyal yonent bi. xam Serigne Touba dund ko loolu rek lay jëriñ. xam Serigne Touba dund ko loolu rek lay jëriñ. ndax waa ji dafa dafa dama ciy mënut a ñàkk a yëngu waaye li nga wax doy na ma ci war a doy. wax wax ji dama ciy mënut a ñàkk a yëngu waaye li nga wax doy na. la ma ci doon doy la ma ci doon doy nii nga ko waxee. ñu bind ko mu di téere mu ne la ko ci doon doy nii nga ko waxee ñu bind ko mu di ñu tasaare ko ci adduna bi ñu tasaare ko ci adduna bi yëpp day yëpp jot day yëpp jot ndax ndax dara li li li sëñ bi bëgg lépp ndax li sëñ bi bëgg lépp lépp mi ngi ci biir mi ngi ci biir wax ji dara dara gën gën wax bismillahi rahmani rahim hadiyatu rahma هدية رحمة هدية رحمة يا رحمن يا رحيم وجد وجل من تكريمه بانا في سار مولد من في البال فنكب تي في تل خادم رسول جرنجن جيف تي فيديو بي نين دون سيطان كيب كوتي بغات فيديو da ngay abonné fi ci Foncap TV Foncap di fondation Cheikh Ahmadou Bamba bu Nord America bi nga xamné mo moo lëkkale daayira yi ci États-Unis ak ci Canada